Euh, sunu plateforme digitale waye tamit IPTV ak fo mënti nekk ñu ngi lay baye xel dila jox sa waccu wàccuwaay ñi nga xamni ñoo ñuy déglu tamit sur la 95.5 modi di sunu mbokk yi fare fofé euh, ci euh, Prestige FM ñomit ñu jox leen sen cër daal di leen nuyu nuyu kep kuy kilifa di diine kilifa ala di ñu baye xel fi ci groupe Prestige na nga fekk baax fi ci diwaan Thiès wala ci biir réew mi nuyu ñi nga xamni tamit ñoo nekk caabi fété leen gannaaw comme niko sék waxé waxee ñoom ñu ci bari dañuy bàyyi xel ñoom it ñu nuyu leen te di leen ñaanal encore une fois mu nekk mbégte ak bànneex ñuy ñëwaat ànd a yéen ci seen émission bi euh, boobu ba tey nag ñu koy àndee comme ni ngeen ko xamee euh, des fois ñu daal di am ci salon bi toog dalal suñu ay gan yoo xam ne dañ ñëw waxtaan ñu ci mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo fekk baax fii ci biir réew mi am fi taxawaay bu am solo ci diiney lislaam waaye tamit seen i mbind seeni i njàngat seen i jaar-jaar ñu waxtaanee ko loole tamit la ñuy def des fois bu ko réew mi laajee lu jëmee ak actualité comme ni ngeen ko xame nag Euh, ci ay bés yëpp ñu génn mu nekkoon lu jëm ci élection présidentielle tabb njiitu réew bañ ko tabbee investir ko euh, ba démb li nga xam ni moo aajo jëm ci première gouvernement bi nga xam ni tabb nañ ko ministre yu ci bari euh, ñu daal di leen di fesal ci loolee nag tey tamit ñu fas ne toog amaat ak yéen waxtaan lu jëm nag ci wàll wi nga xam ni jàpp nañ ni lépp loo xam ni bu dee développement da nga koy xaarandi ak fu mënti doon ñen ña koy incarné nañu am xam waaye tamit nañu jaaral ci li nga xam ni modi njang mais tamit d'une manière beaucoup plus vaste lu jëm ci walu éducation ci lolé nak lañuy ñuy fas yéene waxtaanee am ci patch bu yaatu buñ ci ubi ci lu jëmé ajo bobu dinañ ci dalal nak kenn ko xamné amna taxaway bu am solo ci lu jëm ci walu wowe modi nak Cheikh mbaw jité li nga xamné modi cosidep dañ ko dalal bu né ça ci sunu salon bi tay nak c'est l'éducation à l'honneur ci salon bi leen jaajëfal nuy tamit ñi nga xam ni ñooy xëy fii euh, ci kër gi groupe prestige di amaat tamit xalaat euh, bu baax di ko ñaanal sunu grand Ibrahima Diallo nekkoon fii euh, génn àdduna barki Dembo Ndiaye sunu xel yépp mu ngi ci moom ci noonu rek la ñuy nuyoo tamit sunu mbokk techniciens yi nga xam ne ñoom lay àndal guddi gu jot waaye tamit ñii fare ci plateau bi tey ñëw nañ ci benn benn ñaanoon nañ ñibbi ci benn benn fas yéenewaat nuyoo ci benn benn tàmbalee ci benn. Serigne Fallou Ndaw le doyen tonton père Serigne Fallou <laughs> bonsoir. jërëjëf euh, Ismaïla mang lay euh, fay nuyu di euh nuyu di nuyu mbokku téléspectateurs yi mbokk internautes yeeg auditeurs yi ñuy teewlu euh, guddi gu jot ci seen émission salon d'honneur salon bi nga xamné chaque goudi ñu dalal fi ay personnalités hein, et à chaque fois. ñuy am honneur di mbokk ak ñoom plateau bi euh, di la nuyu bu baax di nuyu euh, Tafa la jeune mi nekk sama wet di nuyu tamit euh, sama xarit Fatima Sow Poulo Diéry di ko nuyu bu baax a baax a baax di sant sunu borom bu baax a baax a baax ni nga ko waxee démb bi ñu fiy jógee dañ ko ñaanoon mu jàppale ñu ba ñu ñibbi ci jàmm may nañu ñu ñëwaat fi tey benn benn di ko ñaan tamit. mu jappale ñu bañu waccat ben ben benn ba mun fee dellu siwaat suñu teyu bakkan di nuyu euh, cameraman yek ñi nekk ci régie bi ñepp euh, di fedeli euh, sunu ñaan ndax nu portons encore le deuil di ñaanal bu baax sunu xarit Ibrahima Diallo di ñaanal yalla xare ko aljana firdausi yalla tek loxo ci njabot gi di nuyu ñepp di sant ñepp Ismaïla di sàkku ñaan tamit euh, ci guddi gi euh, ñu ñaanal ñu ñaanal tamit kër gi ñaanal mboolem jullit mhm. yàlla bu mu nekk sunu mujjantalu koor yàlla nañ ko def ay ati ati at kontaan bu baax euh, Ismaïla la dictateur di àndaat ak yow ci <laughs> émission mais temps yi nag mel na ni def nga un peu d'eau dans ko dans ton bissap quoi <laughs> mais tey moom xam naa ni leer na ma ne tey moom tey moom dig ñu caw man xam naa loolu. tey kay moom comme que ku nekk xam na ñu ngi partir sur des nouvelles bases. oui ku nekk xam ba foofu incha allah. jërëjëf mais c'est le bonne guerre temps yi wàññi na temps yi wàññi na parce que da nga maa jalti jalti fu nekkat. waaw ah, non temps yi moom temps yi moom baax na. Ah, kon baax na mais suñ la waxee baax na da nga yëgalaat affaire yi quoi. <laughs> merci beaucoup doyen falo di ko jaajëfal moom it ci ànd bi noonu la def tamit di ngi xaarandi ki nga xam ne aussi moo di doyen Papa Abdoulaye Mbeng euh, balaa saa dinañu fekk si ci plateau bi tamit tey aussi am nañ fi ay euh, gan ku ci mel ni que le doyen Assane Diagne dina ànd ak ñun ci waxtaan bi ñi nga xam ne tamit euh, mooy euh, sunu papa euh, bu jara ak Samba Alima Ndiaye ñoom ñi ngi tey ci plateau bi fas ñu seq ak ñun waxtaan waaye tamit ñenn ci membre COSYDEP yi ñoom it fekk si nañu tey ci salon d'honneur bi noonee la ñuy def rek daal di dem seeti Moustapha mbay la jeune moom it dina ànd ak ñun tey ci plateau bu am solo bi jëm ci wàllu éducation Tafa ñu nuyu la bala mu nuyu maa ngi lay nuyu Ismaïla di la nuyu di la nuyu téléspectateurs yi nga xamante ñoo ñu suivre si Prestige TV di nuyu doyen Fallou moom xam nga moom daanal la quoi daañu moom daa nii am na lu mu def lu lu mu la def ba nga wàññi quoi di nuyu sax nag Fatima sama sama sama sama xaw a xulloo waale waaye tey di nuyu ñi nga xamante ne ñoom lañ invité tey di ñoo xamante ni tey jii mën nañ ni lépp lu jag si réew mi ñoom la muy enseignant yi waaye tey mën nañ ni aussi lépp loo xamante ni dina ko am si projet wala nga koy am si bilan wala nga am loo xamante ni di nga ko def si réew mi bala ngaa dugg dinañ la laaj loo xalaat ci éducation bi waaye tey bala ngaa génn di nga wax ban bilan nga def si éducation bi waaye à travers ñoom di nuyu sama père bee toog vieux de 18 ans ni moom muy wéyjur boo xamante ni wéyjur bu baax la ñuy taxaw te di ñu jubbanti si yu bëri du ñuy képp koo xamante ni yaa ngi suivre si Prestige TV wala nga ñuy déglu si Prestige FM 95.5 Ismaïla. jërëjëf Moustapha Mbaye ci nuyo boobe ni nga ko defee di la jaajëfal daal di rek wéy di euh, ci waxtaan bi comme ni nga ko waxee ci li nga xam ne tey mu ajo jëm ci wàllu éducation ana lan lañ ci xaarandi gannaaw. Euh, paluk njiitu réew bu bees bi waaye tamit càmbar ndax ñoom amoon nañ taxawaay bu am solo jëm ci processus bi loolu tamit euh, Fatima euh, madame Gaye moom it fekk si nañ tey ci samedi soir bi ci salon d'honneur bi ñu daal di koy nuyu bokk mu nuyu mbokk téléspectateurs yi.

baax bu baax sama doyen préféré doyen El Hadji Fallou Ndaw mi nga xamante ne nii ndaw ndaw ndawen la rek. Mm. ndaw bi mu sant rek xam naa ni gàttu baaraam mën a jiiroo rek laay jooy ci moom. ndax gis naa ni bu moment nogay deseeg ñun rek moom mooy. defi fi ndawen mi ngi noonu <laughs> damay profité tey comme keroog daf maa njël ñun <laughs> jël bu njëkk tey mu profité nuyu bu baax a baax Moustapha mbay le jeune le nouveau papa moom borom le 14 rek laa koy wax. Mm. instant bi lu mu wax baal naa ko ba le 14 passé incha allah mais mais Iraki bi gars di focus di maintien. moom mu ngi mi ngi liggéey. ñun defee lañ toogoon si matinale bi chaque jour di focus di maintien di wax li xew ci réew mi. partage de l'information ndeke moom mi ngi créer information. jaar rek ngeen nekkoon. Irak ñu ngi lay nuyu bu baax de Thiès en marche. voilà Irak Idriss ñu nuyu ko bu baax a baax Idrissa Dia euh, nuyu bu baax a baax madame aussi nuyu suñu grand Assane Diagne moom tamit borom toit du monde Afrique suñu juriste bi nekk soci membre société civile moom aussi c' est toujours un plaisir di bokk ak moom plateau nuyu bu baax a baax suñu ñaari papa yi féete ci ginnaaw ñoom tamit di xaar suñu invité ak suñu doyen Pape Abdoulaye. Abdoulaye Mbengue ñoom itamit ñu teew ci plateau bi bu ko defee ñu fas yéene rek eh, daal di dugg ci li nga xamante ne nii moom mooy wàllum éducation éducation nag suñ koy waxtaanee dafa nekk yenn ci base yi nga xamante ne nii su doxul cim réew dara du fa dox te tey nag bu ñu amee honneur daal di dalal ñi nga xam ne ñooy waa COSYDEP je pense que c'est légitime parce que nag COSYDEP ku ko xam. xamni nek euh, nekk nañ ci ño xamanteni ni ñom ñoy jambaari li nga xamni ne moy l'éducation sénégalaise te bi ñu jàppee ba légui bàyyiwuñu nee naa leen ñooñu ñooy euh, dañuy wax armée moy la grande muette mais ñi ñoy armée sans tambour ni trompette. Mm-hmm. toujours en marche nak le drapeau toujours en haut. machallah donc di ñaan yalla rek euh, tay émission bi ñu waxtané fi lo xamni ne dina nekk njariñ ci askan wi. Mm-hmm. parce que éducation nag nekk na une priorité ici au Sénégal rawatina ces derniers temps li nga xam gis nañ ko fi té mu ñeel walum ay grève walum ay euh, tëj ay université etc. donc lool lépp dinañ xol tay ni ñu fexé ba ñoŋalee li nga xam mom moy mooy njàng ak njàngale fi ci réewum Sénégal Ismaïla jërëjëf euh, Fatou ci loolee nga xam ubé nga ko ñu fassé yéene ko waxtaane tay di comme ni nga ko waxee rek mu nek patch bu am solo bu ñu jagleel tey éducation ci waa COSYDEP di coalition

portable merci beaucoup ci and bi ngeen and ak ñun ci salon d'honneur ren bi gërëm bu baax EDM moy établissement daru Minam Serigne euh, Diaby momit merci beaucoup à lui merci beaucoup à Sherifa Boutique momit ci suñu ay partenaires Le bokk au kangam, sen Agritech ñu jaajeufal leen bu baax a baax baax nuyu aussi sen euh, grand place euh, nek fi ci rond-point Gent di def commerce général nuyu aussi wa à Habillement nous it sunu nos partenaires lañu dañuy and ak ñun ren ci salon d'honneur édition 2024 bi nak prestige jaglel leen te ngeen koy nous, am ci de diffusion ci noné nak la def daal di ndax ki ne le doyen Pape Abdoulaye Mbengue nañu ci plateau bi mom la jox mu daal di dafay lu Ismaël, comme d'habitude beaucoup de plaisir à participer à cette émission là salon d'honneur euh, que tu mènes de main de maître Machallah, vraiment des tu profites aussi Nous sommes nos téléspectateurs sur euh, auditeurs mais aussi nos internautes Nous di aussi plateau bi. Mhm. Euh, Fallou le jeune La Fleur <laughs> <laughs> mais nous nous aussi nous nga

Euh, ñoo am plaisir ñëw fekk si plateau mais nag comme moom ko may rek ma nuyu aussi ki nga xam ni euh, moom mooy suñu invité. Mm-hmm. Euh, muy Cheikh Mbow Cheikh Mbow nag moom mooy directeur exécutif bu COSYDEP tey jii il nous a fait le plaisir comme ni mu ko waxee daaw ni mu ko defee woon daaw ñëwaat fekk ñu si ci plateau salon de mu nekk un grand honneur pour nous Thiessois pour pour le monde de l'éducation et pour cela donc lañ koy remercier de ce déplacement là parce que Dakar la jógee ci guddi gi pour cette émission là.

lu ci bari xew na ci jamono ji ci réew mi waaye loo mënti waxit doo fàtte li nga xam ne moo di éducation parce que mooy la base de tout développement ndax mooy capital humain boobee nga xam ni yéen ci ngeen di xëy ci ngeen di wàcc donc moom buñ ko <laughs> dalalee comme ni nga ko waxee mu nekk un combattant de l' éducation te nekk mbégte ak bànneex ñu mm. dalal la monsieur Mbow bala nga nuyu mbokk téléspectateurs yi ñoo ngi leen di sant bu baax sëñ Ismaïla di ziar waa Thiès yëpp ak euh, képp kuy seetaan télé bi wala di déglu di nuyu ñi nga xam ne ñooy chroniqueurs yi ma fekk na am na ñeneen ñoo xam xàmmee naa ko soxna si Fatou ma dafa mu fi woon naa dernière fois ñoo fi daje woon daaw macha allah sëñ Fallou ak sëñ Tafa Mbeng moom seen frère nuyu public bi nga xam ne it moom moo ñëw fekkee si ko muy waa ko si dem yooyu jàmbaar loolu ci liggéey bi ñuy def di ñaan borom bi leeral xel yi ba waxtaan wi ñu nar a am tey ci bis bi bokk ci waxtaan yoo xam ne danañu gindi teg Sénégal ci yoon gi ñu bëgg ñu ñëpp mhm. am waxtaan bu am njëriñ donc ñoo leen sant bu baax di leen gërëm wax na ko bi mooy deuxième fois ma ñëw mhm. daaw ñëwoon nañ ko fekkee déwén mhm. fekkee ren yéen ko yàlla nañu fekkee waat déwén ah, incha allah euh, ñëwoon ngeen it suma bureau ah, donc dafay dem ba mel ni ko si def ak prestige moom ah, léegi saye loolu am na directeur bi gis naa ko mu nekk it ku baax mhm. donc sant na leen bu baax gërëm leen bu baax nekk à votre disposition nag pour ñu waxtaanee Sénégal. incha allah euh, waxtaan woo xam nag day amal njëriñ Sénégal. jërëjëf jërëjëf monsieur Mbow sans plus tarder rek xam jamono ji ñëpp ñi ngi toog di déglu ñëpp ñi ngi xaar doyen euh, tambali waxtaan bi sans plus tarder ndax li ñu war a wax bari na te du xaj ci salon de d'honneur mais on va essayer euh, de euh, tirer li nga xam ni moo di crème bi rek pour mën a éclairer lanterne sénégalais yi mais comme ni ma ko waxee léegi ci njëlbeen gi moo di gis nañ li fi jaar ces derniers temps mu jëm ci processus électoral ba ñu àgg ci scrutin ba tabb président ba investir ko ba démb li nga xam ni moo di premier gouvernement bi génn waaye loolee dafa am lu ko waral ndax bu fekkee élection tamit amna kenn gagné ci premier tour té amul tout léegement le amna na ñoo xam ni ci taxaway bu am solo té lolé nak ñi nga xamni tamit ñoo di wa ko ci def kenn dem du dess absolument loolu vraiment euh, maa ngi rafetlu bu baax a baax euh, fi ko jëlé parce que en vérité euh, disons cette situation politique bi nga xamni ni ñu ngi ko doon dund juridico politique on a dund nañ toutes ces années là et on ça n'a pas laissé l'école indifférente et donc euh, par rapport à ça considérez bi nga tout le monde naturellement parce que c'est la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation donc loolu kooku nous rester insensible à tout ce qui s'est passé entre temps ben, fini, fini fii ñu egg si ni que euh, trouble le monde, voilà, les manifestations wala les grèves mais en tout cas euh, toutes ces situations politiques là qu'on a qu'on a vécu gis nañu que euh, ban impact la am ci école bi un problème qui ci dit il y a tout ça donc donc en vérité bu mel ni école bi kon euh, euh, dafa vivre loo dafa dundaloo ak li nga xam ne moom la classe politique euh, li nga xam ne moom mooy la la situation politique la yan jàngat yan problème la indi ci école bi nag loolu ak moom dinañ ko jàngat ci kanam beneen bi gis nañ ko egsi nañu finalement yàlla def na si jàmm ba nga xam ni amoon na ay soubresaut amoon ay problème mais comme li nga ko waxee des membres de la société dont la considère am na lu ñu ci ay rôle lu ñu ci joué ba jàmm jooju ñëw si ñu dellu si ben finalement il hein, le dimbali Sénégal Sénégal vivre donc ces élections là ci mais tu loolu ku que ce kon xam nga ku école ku éducation rek da wax jeune que mm. euh, si def am ay taxaw aussi mu taxawoon suivre en même temps parce qu'on a un observatoire national donc on xam daf observer élections yi euh, doon suivre en même temps donc la disons le comportement des primo-votants mais il y a eu dinañ ci ñëwaat mais après ça donc ñu vivre ce qu'on appelle donc ce nouveau régime avec euh, évidemment donc au nouveau gouvernement et en l'occurrence c'est la coïncidence elle est belle euh, d'un ministre de l'éducation mhm. un gouvernement de mais <laughs> ministre de l'éducation donc euh, am et disons nous gouvernement l'olib alors mais d'abord moi que

Euh, lan moy cosidep euh, lan moy lien ak euh, société civile lan moy lien aussi ak éducation pour que ñu mëna gëna xam en finalement mëna gëna situer contextualiser li ñu na a wa cosidep ap coalition la madame mbootaay la bu dajale ay mbootaay si biir mbootaay yi mu dajale mu am ci mbootaay yi yëngu ci parents d'élèves yi wajuru doom yi wajuru xalé yi membre cosidep lañ am mbootaay yuy dajale jàngalekat yi syndicat

mais ensuite am aussi un euh, réseau de journalistes en éducation formation pour dire que coalition la boo de dafa set ñepp ñuy yëngu ci mbirum jang ak jàngale nan la li mën dajalé pour que ñuy dóorandoo benn dóor bu ñëk dañ doon seetlu euh, nga dugg ci benn l'école euh, action ñoo faire ay ay fenêtres Action Aide bëgg défarat ay fenêtres bu ko defee loolu dañuy gaspiller les ressources gaspiller aussi suñuy suñuy énergie donc dañuy mën a fexe ba suñuy intervention ñu gën ko coordonné loolu mooy ko si def mu nekk aussi benn plateforme boo xam plateforme waxtan la parce que bu njëkk je me rappelle bala ñuy juddel ko ci def en 2007 2008 toli mo moo doon syndicat yi nane ONG yi ñoom ay bras armée gouvernement bi lañ le gouvernement bëgg rek lañu def bu ko ñom mënu ñu won fexe ba nangu intervention wu euh, ONG yi ONG yi aussi japp di syndicat yi opposition caché lañ ñom chaque fois dañu fi nek di di coow di yàqate ñu ne nak dans tous les cas ñooñ ñi nga xam ne ñëpp dañ ne pour éducation il faut ñu am fu ñu am benn plateforme boo xam ne danañ jéem a pour xale yi déggoo pour système éducatif donc plateforme aussi d'échange la maintenant statut statut ONG la parce que on n'est pas syndicat on est plus qu'un syndicat parce que ONG yaa ngi ci plateforme ONG la parce que statut soit ONG la ñu am parce que simplement suñu réew ni mu bindoo amagul statut coalition qui existe dans le milieu associatif donc loolu moo waral ñu am une euh, ce statut là aussi c'est une présence sur le terrain parce que les ñu bëgg moi lépp lu di jëf mu jóge ci askan wi ngox goxaan yi moo tax ñu mettre en place antenne yëpp ku si def Thiès di nuyu Mbengue bi nga xam ne moo koy coordonné depuis quelques années ku euh, si def Ziguinchor ku si def Kédougou donc dans toutes les régions am nañu ay antennes ñoo xam ne ñu remonté la information sur cette base loolu la ñuy jàmbat di ko càmbar di ci liggéey pour mën a joxe suñu position ku si def aussi dafa am benn positionnement au niveau régional parce que dañu nekk ci benn kuréel bu ñu tuddee Africa Network Campaign on Education for All dajale 39 coalitions yëbal na ko si dem nekk ci 39 pays africains foofu aussi njariñ bi mooy xëy na yenn saa Sénégal am ay jafe-jafe yu muy dund bu ko xoolee Burkina dana ci mën am ay tontu li xewoon Burkina mën na ko inspiré. Mm. donc day nekk benn plateforme d'échange de pratiques de connaissances il xam ne mën nga fa inspiré wu. parce que amul benn problème boo xam ni problème de baisse bees la pour réew lu am lu ne xewoon na feneen wala lu ñu nduru xewoon na mm-hmm. donc bu fekkee da ngay def. Euh, li ñu tudd li ñu tuddee benchmarking di wër li xew ci àdduna dina tax ngay gën a gagné temps. Mhm. nekk nañu aussi benn plateforme mondiale bu tudd Global Campaign for Education 180 coalitions à travers le monde continent yëpp. de sorte que liy xew Brésil liy xew France liy xew euh, je ne sais pas États-Unis yëpp am nañ ci information parce que am nañ suñu naataangoo yu fa nekkal. Mhm. donc COSYDEP euh, noonu la bindoo ci fànn boobu li ko tax a jóg nag mooy fexe ba éducation damay dégg sax ñenn ñu wax école publique.

dinañ fa jàngal daf ñu yitteel école privée école communautaire euh, ci atelier bi ñuy jàng bi ñuy bi ñuy jàngee ñaw euh, ci école publique bi maintenant évidemment que dañuy def une attention particulière sur l'école publique parce que mooy école bi nga xam ni gox-goxaat bi ak ki amul doole ki am jafe-jafe si la gën a yaakaar mooy waral xëy na ñuy gën a fësal euh, suñu taxawaay ci école publique bi parce que jàpp nañ ni nguur gi moom mooy Wajur bu njëkk pour doomu doomu Sénégal bu fi nekk ku ne quel soit par ailleurs fi muy dem comme offre bu fekkee xale def na école privée euh, te nguur gi xoolul école privée nan leen ko tabaxee ñu fay jàngale nan la leen tàggatee est-ce que ñoo ngi di fay ni mu waree est-ce que école ba répondre aux normes boobaa it ah ay risque la pour ñun mm-hmm. ay risque la pour Sénégal donc loolu moo waral euh, dimension wu éducation publique éducation ñuy fàttali nag sa dimension publique nekk lu ñu yitteel donc loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy liggéey fan la ñu koy teg ci ay gëstu dañu def ay gëstu gëstu sur euh, yenn enjeu gëstu si yenn défi gëstu yooyu mu jox ñu ay données données yooyu rek ñu def ci plaidoyer plaidoyer mooy wax ak ñi nga xam ni ñoo ngànk ñoo am pouvoir jël décision parce que def amul école def amul enseignant def amul élève donc bu fekkee dafay liggéey dafay fexe ba nekk en bonne intelligence avec ñi nga xam ni ñoom la yàlla jox ñuy gérer structure yooyu muy ministère yi muy assemblée nationale et cetera donc loolu mooy suñu liggéey bi ñu def euh, donc basé wu ci recherche ensuite am ay données mu suñu plaidoyer euh, joxe ay données alternatives donc loolu moom mooy euh, li nga xam ne moom la ñuy liggéey ci fànn yëpp mais di seetlu aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a ñàkk dugg l'école parce que j'ai l'habitude de dire je crois que xaw ma ndax waxoon naa ko fi daawam déet euh, buñ di bu nekkee dañoo am esprit générosité lépp lu ñu def lu ne dañ ciy sóor ki gën a néew doole loolu moom mooy tax ba société mën a am équilibre ñun suñu doom mën nañ leen toppatoo mais am na koo xam ne boo ko laajoon téeméeri dërëm doom du jàng ko école te ñun waruñu fàtte benn yoon ne képp koo xam ne si ñun mën na lire mën na bind mën na yore boppam en charge ci français ci arabe ci wolof ak ci langue bu mën doon ñeneen ñoo contribuer pour mën ko def moo waral ku jàng di yëkkati mbagg kooku mooy amul xam-xam parce boo amee xam-xam dëgg dangay xam ni même ki jàngul cotiser nag pour nga mën a pour nga mën a pour nga mën a tekk doon li nga doon ndax école yi nga jaar yëpp bu ku nekk gëmmoon fàttaliku ñaata école la jaar daf koy leer ni waajuram mënu ko tabax mhm. bu ku nekk gëmmoon ko ñaata jàngalekat ñoo ko jàngal leer na ko ni waajuram mënu leen fay bu ku nekk ko woon ñaata tablement la toog xam na ni waajuram munu ko fay donc ñeneen cotisé nañ y compris ñi jàngul pour yow nga mën am donc li nga mën a jox en retour mooy nga xeex pour que ñoom aussi ñu mën a bénéficier aussi droit à l'éducation solo am na fi ma ko doon kii rek mooy ban degré d'implication la ko si def am si éducation Si côté dégrèvement yéen da ngeen di proposer exécutif bi di exécuter wala tay da ngeen di da ngeen di da ngeen di jël ay décision non ñun xam nga mënuñu jël décision parce que organisation société civile lañ mm-hmm. li ñu mën def mooy éclairer ay décision fexe ba ki xam ne ki jël décision ñu jox ko li ñu waxee ay document de euh, qui qui lui permettent mu mën a éclairer moom ses prises de décision ñun loolu la ñu mën def donc en terme de degré je ne sais pas dans quel sens ngay wax degré mais en termes d'implication ak euh, de positionnement dans le secteur je crois que euh, tey kilifa yëpp ah, nangu nañ euh, njariñu ko si def parce que bu système éducatif bi amee jafe-jafe yaa ngi fàttali corona bi maa ngi nuyu ministre Talla bu nekkee mu ngi ñu seetaan moom xam na ko ni lépp li nga xam ni génn nañ ko comme solution base bi moo ngi jóge ci kër googu ñu tuddee ko si def moom génnuloon na ma ci biir état d'urgence ne ma mënuloo toog il faut ñu waxtaan ñuy daje fu ne ci diggu guddi pour set na lañu mëna fexé ba xalé yi duñu duñu duñu duñu sen temps bu amé ciow crise jàngalekat yeeg euh, truc yi je crois que sen seen euh, euh, négociation yi mujj yi waral ñu xaw yok mën-mënu kat yi ñi fa nekkon te xam ko secrétaire général yi nga xam ni ñom ñoo togon les sept ñok may seetaan mën nañ ko xeyna sédé tolon nañ fo xam ni waxtaan bi doon ngeen fatlu ko muy dem bay 4 h du matin 5 h du matin mm-hmm. liko doon waral du won dañoo tok ci salle mais liko waral moy ñom ñoo bañoon waxtaan seen biir gouvernement bi ñun la doon waxal ku si dem ñun ñu seet nan la ñu naxanteeg syndicat yi ñu nangu ci syndicats yi bu ñu d'accordul defaat demande suspension génn waxaat ak ñun ñu lijjanti ñu ñuy déyanteeg gouvernement donc ñoo doon jouer équilibre boobu moo waroon day mu doon yàgg parce que plusieurs fois suspension la woon mais amoon nañ chance am benn instrument bu tudd COSYDEP boo xam ni ku ne si ñoom même bu ñu wóolu wante woon si négociation yi wóolu woon nañ instrument boobu de sorte que lu bëri si ñu la doon jaar donc euh, su lu bëri boo jëlee par exemple li ñu tuddee le groupe local des partenaires de l'éducation au Sénégal GNPF bi nga xam dawal paquet bi le programme euh, ñun avons euh, comité directeur bi mooy organe restreint donc euh, je crois que politique éducative bi amul lenn de ñu ci def ministère assemblée nationale on est en partenariat avec la commission éducation de l'assemblée nationale par exemple donc à tout point de vue les syndicats nous sollicitent à tout point de vue on a des relations de respect avec nous parce que nous na nañ am crédibilité am nañ objectivité euh, ba du ñu jàng fenn euh, loolu moom mooy évidemment euh, positionnement bi nga xam ne am nañ ko tey ci secteur bi mais buñ ko amee ñiy liggéey ci suuf ñoom ñoo koy waral buñ ko amee aussi jéem a am li ñu constance xam fi ñu quel que soit le régime quel que soit ay nit nekk ci suñu mission xëy na loolu moom moo ñu ko moom moo ñu ko may donc daal on est très bien positionné bien écouté bien suivi bien sollicité par les par les décideurs voilà donc c'est encore un plaisir nous dalalaat la ci salon d'honneur ñu lay nuyu bu baax le doyen Pape Abdoulaye Mbengue sànq bi ñu nous fekkul nga mais de toute façon dañ la le bon rek parce que yow moom inconditionnel ga euh, Aïcha man fi ma bëggoon a ñëw damay retourner tout en arrière dans di dem élection parce que euh, maa ngi ko doyen Pape Abdoulaye Mbengue mi ngi ma doon wax da ngeen di def euh, da ngeen di observer le comportement des primo-votants mu nekk loo xam ne nag lu am solo la parce que une participation massive day euh, day baax bu primo-votants yi di voter itam ñu xool ndax ñoom comprendre nañ comment voter yéen euh, ci seen observation boobu ngeen doon def yan résultat ngeen ci ngeen ci tirer yan conclusion ngeen ci mujjee am est-ce que jàpp ngeen ni euh, un primo votant il a toutes les informations qu'il faut euh, avant avant le jour de l'élection waaw xam nga processus élection bi dafa nekk processus bu ñu yitteel ñun ko si parce que ñun gëmuñu ni éducation égale scolaire éducation du école kese benn gëm nañu aussi que ni euh, xale li mu ëpp ci li mu xam muy man ak yow ah. li ëpp li ñu xam xamee wuñ ko école. Mhm. ngi ko xam ci wetu suñu maam. ñoo ngi ko xam xëy bi ngay dem marché. Mhm. di ni ngay jëfanteeg jaaykat bi. ñoo ngi koy xam xëy ci koñ bi. Mhm. ñoo ngi koy xam bi ngay seetaan télé. bëri na loo xam ni télé bi moom moo la ko xamal. ñoo ngi koy xam xëy sax bi ngay dem plage. di fo yaakaar ne yaa ngi fo mais yaa ngi fay jàng. donc on apprend en tout lieu on apprend partout. ñu jàppoon ni donc processus élection bi aussi apprentissage la école la pour ñun. ñoo ngi doon tooñ naan leen Euh, ci jamonoy élection bi mu particulièrement campagne bi dix neuf candidats yi pour ñun moo doon dix neuf enseignants yi ñu bañ a fàtte ni ñoom ay enseignants lañ que ñi leen di xool c'est pas seulement ñi mën a voter mais même xale yi ñoo ngi xool seen comportement seen attitude ak ni ñuy jëfee ñu jàppoon ni curriculum bi li ñuy jàngale ci ci période élection bi moom mooy ñoom seen offre programmatique ku nekk nee na man nii laay jubbantee Sénégal mhm. donc day nekk curriculum donc lecture boobu lañ ci amee ba nga xam ni pour ñun c'était un moment pédagogique bo xamné xalé xale bi ko waroon jàng moo waral ñu won nangu ñu yàqal ñu moment pédagogique boobu. Mm-hmm. donc ñun gisuñu ci jafé jafé élection. Mm-hmm. nek na lo xamné il faut Sénégal toll ci no xamné ne day day melni lu normal. Mm-hmm. ñu bañ chaque fois buñ ko wara a jub nit ñi tit élection buñ ci jubee dafa war a nekk fête. dañ ko wara célébrer dañu wara japp ni euh, démocratie mo ngi noyyi donc perspective bobu lañu bëgg ñu dem ci comme ni am ko Cap Vert Cap Vert dañu def élection ba génn ci nga xam candidat yi xam campagne bi bu ñu yewoo ñu dem liggéeyi du am coow avant du am coow pendant du am coow après mais Sénégal ce n'est pas toujours le cas donc loolu euh, bokk na ci li nga xam ni yitteloon nañu ci mbirum élection bi mais liñ ci doon yitteel aussi mooy li nga wax ni moom la doon observé mooy di déglu aussi fan la ñi bëgg a yore réew mi fan lañu nan lañu ñu gisee éducation fan la ko teg fan lañu ñu teg capital humain bi parce que quelle que soit offre bu ñu mënti am offre bobu moy li ñuy proposé Sénégalais yi né non lañu bëgg jubanté réew mi euh, il faut ay nit a koy def du ay jinne ñokay def du ay garab ñokay def nit ñooñu fi ñu leen tabaxee moy l'école bi donc bu nekké da nga am offre il faudrait évidemment nga am nga won ñu ni yow comprendre nga ni capital humain moom moo ko war a porter donc loolu dañu ko observé di seet ku ne lan la proposé moo waral dajal nañ je crois bi mu desee deux jours campagne bi dajal nañ candidat yi 50 pour cent neuf yi ñëw neuf yi ñëw le président actuel était bien représenté ñu ñëw ñu def benn rencontre bi ñuy wax éducation face aux candidats pour xool seen offre. donc loolu xool nañ ko beneen bi moom mooy li nga wax comportement primo votant parce que Sénégal après dañu dem ba changer un peu suñu république dafa décider nii léegi xale yi mën nañoo voter à l'âge de 18 ans avant 21 ans loolu. 21 mhm. ans ñu ngi leen doon en majorité université. Mhm. léegi ñu def 18 ans boo nee 18 ans kon yaa ngi lycée. Mhm. lycée 18 ans yi ñooy presque deux tiers boo jëlee lycée bi xaaj ko ñetti xaaj ñaari xaaj yëpp am nañ 18 ans konte nag xale yi dootuñu nekk seulement ay cible mais dañu nekk ay acteurs dañu am mm. possibilité voter dañu am possibilité décider dañu am possibilité déglu dañu am possibilité am ay position donc xale yooyu il faut ñu am ci yitte si ñoom loolu mooy benn bi taxoon ñu amoon yitte ci primo votant yi mooy nu ñuy fexee ba ko ni euh, suñuy doom surtout ñu nekk dans les lycées mm-hmm. léegi majoritairement am nañ plus de 18 ans malheureusement euh, nombre bi nga xam ne dafa inscrire ci primo votant yi doyul mm. tuuti na lool par rapport ak part li ñuy représenté malheureusement ñi ci inscrire te ñu bindal leen ne c'est pas voté aussi bari na lool ñu ne kon léegi ñi nga xam ni inscrire nañ ba pare amuñu ne c'est pas voté nan la leen ñun gunge ba ñu am une participation responsable parce que coow li doon am ci législative ak yeneen élection am Sénégal yëpp depuis ak avènement numérique ñu doon porté xeex bi ci TikTok yi ci Facebook bi di ci wax lu ci dul wax di yaa ngi fàttu bi ñu xotti ay cahier di tagg ay di laal ay élèves la ñu war ñu ne kon nu ñuy fexe ba xale yi ñu xam ni war nañu dem élection mais dañ ci war a dem en toute responsabilité. Mhm. COSIDEP c'est nag mettre en place les mots des LMDC lycée modèle de la citoyenneté et du civisme lycée modèle de la citoyenneté et du civisme Yo xam même dañu dugg ci lycée yi dajale xalé yi euh, waxtaan ak ñom, am ak ñom et activité mhm. euh, déroulé ak ñom, ba nga xam ni ñom comportement bi ñu neexu won te ko doon gis ci ñu contrairement comportement contraire Commencer di sensibiliser de seen morom di wan ku ne nan nga comportement ci donc mhm. loolu lañ ci def bon maintenant au finish ci biir élection bi gis nañ ni xale yi évidemment que seen comportement ñëpp naw nañ ko. Mhm. man dégg naa ay mag ci seen télé yeeg rajo yi yu naan seen doom moo leen jël yëkkati leen yóbbu leen. donc am nañ comportement mhm. citoyen non seulement dem nañ vote ji mais am nañ amul tam benn casse jour élection boo xam dégg nga ni. Mhm. xale yi ñoo ko def dañu ñëw rang dem vote demal si ñoom. donc am nañ ci résultat yooyu. bon maintenant ñun liñ ciy def nag en tant que société civile comme je disais amuñu école. donc li fi nekk ci école mu yëpp mënuñu ko woon couvrir. Mhm. ay ay école privée rek la ñu am. mais école privée pour ñun am nañ ci njàngat yu am solo yoo xam ne partagé nañ ko ak suñu yeneen ni naataango yu nekk ci yeneen région yi. Mhm. Mhm. bon man fi ma doon dikkaatee. sànq doo may doyen jël benn. d'accord non si question bi da ah, <laughs> yaa ngi tudd l'éducation partenariat. soo ko déggee nii candidat yi ñëw nañu yaakaar naa ni c'était pour saytu ci nekk programme bi nga am ci éducation. tey dañuy faral Sénégal sooy leçon jufte dinañ gis ni organisation yu bëri dinañ organiser lu mel noonu mais après duñu wax sénégalais yi kan si ñoom moo gën a baax le programme ci domaine bi leen woo est-ce que yéen ko si def organiser ngeen bi ngeen organiser loolu saytu ngeen ba xam kan si candidat yi moo ëppoon moo gënoon a baax programme xam nga ñun aussi dañu war a respecter li ñu tuddee secret di ko beneen bi mooy xam nga du du ko si def mooy digal nit ñi ne kii moom mooy ki ngeen war a voter boo ko defee rek yow da ngay far da ngay xafar jeng mm. parce que société civile lañ mais par contre li ñu def moy aménager espace bo xamni askan wi danañ waxtan ak candidat yi dégg li candidat yi wax ku nekk nak ak sa sa bàmmeelu biir comme on dit bo tëddee yow kese wet nga jël décision. Mhm. parce que bëri na loo xam dañ non voter te sax duñu suivre campagne bi duñu xam dañu top rek cioli ñun nak dañ doon doon permettre permettre askan wi ñu xam au moins lan la lan la candidat yi proposer ci mhm. éducation donc doon ñun ñoy arbitrer pour wax ki mo gën baxlé wala ki mo gën bonlé

am nañ hypothèse de développement am nañ gis-gis politique mais dañ ne suñu suñu socle de développement mooy éducation donc ki gën a def offre yu gën a méngoog suñu gis-gis ci éducation moom mooy suñu parti. mais on est après les élections xanaa mën ngeen ñoo jox ci programme yi kan ngeen gisoon ni moo gën a baax le programme. oui mais je veux dire xam nga ci booy seetlu euh, Sénégal euh, ñun li ñu seetlu en tout cas ci programme yi ñu jàngat parce que jàngat nañ programme yëpp ah. Mm-hmm. ñeen ñoo ñëw nag. mais jàngat nañu parce que amoon nañ benn observatoire sànq mbeng moo koy wax boo xam ni. Mhm. dafa jël dafa jël candidat yëpp seen off ñu gén ñu génnee ci li ñu jagleel capital humain ak éducation jàngat ko après dajal leen mais li ñu seetlu benn seetlu bu njëkk bi nga xam ne mën naa ko wax euh, te mu leer naa ñi mooy dafa mel ni bëri nañu ay similitude en gros mhm. ça veut dire que en terme d' analyse état des lieux Sénégal jafe-jafe yi am ci éducation bi mhm. euh, coono yi ci am ñoom ñëpp ñoo bokk li ñuy wax xam nañ ko donc moo tax bu doxul daf paradoxe lay puisque ñun mhm. je crois que li jafe yi am jafe-jafe ci système éducatif ñun ñëpp xam nañ ko. Mhm. la que ñun ñu xam ko te pourtant nous ñu ko comme ni mu waree loolu nañ ko seen biir. Mhm. li nga nañ ko la question de la souveraineté par rapport au système éducatif Nous, ñuy fexe système éducatif nous xam répondre à nos normes dafay tegu ci suñuy valeur nous ci suñuy jaar nous ñoom ñëpp euh, nous beneen bi mooy la question du financement ñoom it gën nañ ci donc bëri na ay similitudes yoo xam ni euh, nduróo na ay nduróo waala yoo xam ne am nañ ko maintenant am na ñoo xam ne dañu def seen focus nag sur li ñu tuddee euh, la formation professionnelle lépp lu jëm ci jàngal xale bi métier. am na ñoo xam ne fa lañ gën a nag en plus de li ñu nduróo waale loolu lañ fa lañ gën a teg seen baaraam am ñoo xam ne la question de des contenus li ñuy jàngal xale yi. fa lañu ñu gën a insister. am ñoo xam ne fan la ñuy jëlee financement bi. Euh, financement endogène fexe ba nga xamné li finance éducation djogé ci su askanu éducation pour ñu mëna mom sen bop mhm. fa lañu fa lañu ñu sen mais euh, li ma mënul wax te xam naa ngeen ma koy may rek mooy egg ci naan tel candidat non non mais defal nañ quand même document boo xam ni xam naa mbeng bu leen bu ko neexee mën na ko partager ngeen. boo xam ni sans ñu def ci commentaire. sans joxe suñu point de vue résumé nañ lépp loo xam ni candidat wax na ko. teg ko def ci biir document boobu wane nañ engagement parce qu'ils avaient cinq minutes pour nous parler pour nous convaincre. 5 minutes yi engagement yi ñu jël mooy ñoom seen résumé bop teg nañ ko maintenant document wala mën la leen ko jox jébal leen ko ñun buñ fi génné ngeen jàng ko seen biir et puis yeen da ngeen apprécier par par par vous même mais dans tous les cas li nga xamné constant na te ñu mën ko wax ba mu may ba mu leer moy bari na ay similitude ci état des lieux bëri na ay similitudes ci propositions yi ñu war a def maintenant am na quelques particularités en termes de fan la ñu gën a incité balaa doonee fàllu ci état des lieux parce que c' très important des fois yi ci seen i programme buñ ma baalee ci wax ci kàddu gi des fois yëngal lay nekk <laughs> mais ci bii laay yóbbante rek c'est-à-dire que coppi collé lay nekk des fois état lieu boobu ngay wax maanaam aller aller en profondeur ci programme yi def étude bi diagnostic bi est-ce ci yi ngeen gis loolu am na ci waaw am na ci mais xam nga li ma leen tàmm di wax ñoom ñëpp moom mooy xam nga méthodologie bi dafa am solo. Mm. parce que état des lieux bu nekkee da nga ñëw defee ko tëju ci bureau. jël ay consultant mooy Ismaïla mu am xam-xamam ne la loolu pour ñun du état des lieux bu tontu ci euh, gis-gis bi ñu am. tey ci éducation. Mm-hmm. ak ci programme de manière générale méthodologie bi dala war a nekk méthodologie boo xam da ngay dem vers les communautés. di jaawante ak ñoom. Mm. di xam seen soxla te loolu jot la xaalis la temps la. Mm-hmm. il faut que ku nekk mu jaral la loolu. amna ñu ko def ñun am na ñu ñëw suñu na ah. booy seet euh, sur les 19 et même avant ak candidat récalé yi mën nga ci am un fort pourcentage plus de 30 40 pour cent yoo xam ni jaar nañ ko si def pour échanger ak ñun bu ñu échanger ak ñun jël suñu perception ñun nan la ñu gisee éducation ñoom ñu ne pareeguñu seen programme dañuy ñëw waxtaan ak acteurs yi xëy na seet na acteur xëy na dem nañ ci gox-goxaat donc ci méthodologie bi fa lay li nga wax ci état des lieux di feeñee bu fekkee ni dafa nekk loo xam ni approche consultant la rek koo xam ne day toog ci bureau climatisé bind lu ko neex bokkul ak ki nga xam ne dafay ñëw jaxasoo ak askan wi laaj leen seen yi seen i parce que dañuy tàmm di wax ni te loolu li bu ne war na ko di jàpp mooy xam nga euh, éducation boo koy jël da nga war ni askan wi ngay war a ñoom war a nekk ñooy bénéficiaire bénéficiaires mm-hmm. donc ki nga xam ne moom moom li ngay proposé da koy déglu.

donc ken mënta mënoo nangu ni ku ku ku am xam-xam dana da rejeté jang mm. mais bëggul offre éducative bob bo démé félé dans le colda c'est la même chose une partie de caféine c'est la même chose donc ça veut dire nu ñuy fexe ba dañu am système éducatif boo xam ne dafay tontu bëgg-bëgg askan ba nga xamni xalé bi bu fa duggé ci l'école bi bu génné du jaaxal ay wajuro mm. mais da fay nek ko xamni ki dina dina gëna dëgëral ngëm-ngëm bi mu am ci biir askanam mais ensuite dina mëna aussi indi ay tontu ci jafé-jafé yi nga xam ne am ñaata yoon lay nit di dugg école génn ci l'école mel noo xam ne nii xëy na nekkul li waajur bi di xaar ci moom donc il faut ñu am méthodologie bi daal pour ñu amoon na solo ci état des lieux bi te ci biir programme bi seetlu nañ ñenn ñoo xam ni dañu am benn benn approche très participative mais am na si ñoo aussi boo lii da nga xam ni yem ci comme tu comme tu appelles copier coller dugg ci Google génne lan la ci lañ jox ci éducation yem ci. dinaa ñëwaat après dama bañ doyen Fallou ma dictateur mais am na leneen ñëwaat après. ci beneen bëgg a sax. sa ay ay joueurs yoo xam euh, ci. ay joueurs yu indiscipliné. <laughs> tactiquement tactiquement oui tactiquement ils sont indisciplinés. Mm. waaw bon may may may la ñu nuyu bu baax. Euh, jërëjëf sëñ Fall. Euh, directeur exécutif euh, Cheikh maa ngi lay bu baax di la dalal. jërëjëf. di nuyu tamit mbokk jàngalekat yi bu baax a baax bi ñuy door boobu ñëw loolu ñoom Assane Alex Fapal lay nuyu tamit. man nag euh, fi may fi may ñëw ak yow rek mooy su ma jëlee considère ñett yu mujj yi moom laay jël pour indi sama sama laaj sama sama taxaw muy défense de l'éducation publique kon yéen seen coalition bi da ngeen fay nekk pour euh, pour aar pour sàmm njàng meeg njàngale mi mu nekk une coalition boo xam ne euh, su ma déggee ni nga ko indee seen mission ak sen taxaway euh normalement dañ leen wara a une oreille attentive parce que euh ñiko composé jàngalekat yaa nga fa syndicat yaa nga fa expert yaa nga fa ñepp ngi fofu té défense de l'éducation publique damay japp né du gérer ay crise dañu wara mëna fexé ba crise d'ailleurs do du c'est ça mëna fexé ba njàng mi ak njàngale mi am jeexital ci kiy jàng euh, élèves yi nga xam ne dina mën a jàng ci teeyu bakkanam ba pare am xam-xam boo xam dina ko jëriñ kiy jàngale tamit gis ci boppam ba mun a joxe euh, éducation bi war ci teeyu bakkanam ak xam-xamam mais ma gis ne euh, njàng mi ak njàng mi bëri na problème beaucoup de réformes diar et pourtant jusqu'à présent on a comme l'impression qu'on se cherche on n'a pas trouvé euh, la bonne formule li nga xamné non lañu wara mëna jàngalé ba wàññi crise chaque année les crises reviennent léegi wax nga crise bi nga xamné ne géré ko ñu leen doon une oreille attentive xana kon avant crise est-ce que bàyyi nañ leen jox nañ leen nopp pour ngeen mëna digël ñi nga xamné ne ñoo fi nekkoon ni li kat bu fi peut-être crise do parce que c'est la meilleure manière de défendre l'éducation parce qu'une fois que crise est l'éducation, éducation bi euh, am na am na ne ko euh, au niveau des enseignants euh, la réforme enseignants peut-être même la formation qu'il faut au niveau des enseignants nous, avons formé en tant qu'enseignant si ak taxawaay bi nga les actuels enseignants ont ça loolu kon formation enseignant yi am na problème njàng mi environnement bi am na problème et y a gouvernements yu fi jaar bu ñu leen déglu woon normalement da ngeen leen war a wax ne lii kat baaxul waru leen def lii ñu am ci taxawaay et c'est là où je ne serai pas tout à fait d'accord ak ak yéen bu ñuy dem ci élection da ngeen war a mën a tamit dimbale askan wi ci ñi nga xam ne indi nañ seen programme pour jeexitalu euh, enseignement bi ñu ne ah ñii kat. liñu indi nag buñ ko indi indi ko ci njang mi peut-être problème yi ñu amone dinañ ko safa mais bu ngeen baye ba élection yi jeex ngeen xam ko te askan yu xamuñu ko euh, défense bi damay japp ne des na xawma ndax <laughs> jël nga fi may waxe wala parce que ki ngay défendre donc nan ki liñ ko jox doxalu ko nim ko wara doxale motax problème yi am ñi nee nañu bu dinañ indi saafara ci li ak ci li ak ci li ñun buñ ko sayto xol ko xam nañ c'est possible te bu ñëwee war nañ ko mëna indi loolu aussi dafa war a nekk ci liggéey COSYDEP c'est pour dire que seen coalition bi coalition la boo xam ne buñ ko dégloo bàyyi ko xel ngeen doxal la nga xam ne noonu ngeen ko war a doxalee sans complaisance et puis montrer véritablement le chemin vous avez l'expertise qu'il faut pour que enseignement bi euh, joyetu est-ce que euh, état yi ngeen doon la ñoom dinañ leen déglu pare attentif avant avant avant crise mais mais dafa bëri question si sëñ Fall ah. normal parce que sëñ Fall moom bëri na ci question yi nga xam ni moo ngi ci biir question mhm. euh, mais c'est intéressant parce que da ngay seetlu ni sëñ Fall moo ngi suivre système euh, actuel d'éducation ah enseignant la ah bon ça xawma ko mais ça se voit ci biir ni muy waxee seen club la quoi damay bëgg damay bëgg a tàmbali ci li nga mujjee laaj mooy lu tax ñun ñëwuñu ñu wax askan bi ne leen kii moom moo offre bi mu def ci éducation moo gën a baax bu ñu ko defee dañuy génn suñu suñu suñu ànd loolu waruñu ñun waruñu en tant que organisation de la société civile maintenant war nañoo gunge askan wi gunge nañ leen ne leen gunge mooy fexe nañ ba pendant élec campagne électorale bi que ci biir waxtaan bi place su éducation génn ci fexe nañ ba animé parce que dañ doon wax naan nañ fexe ba éducation kenn du ko noyé ci biir campagne bi moo tax ñu xeex ba booy seet def nañ ci ay sorties yu bëri def nañ ci ay waxtaan yu bëri dajale nañ quelques

man nga ko am aussi si ko ci def pas à travers seulement campagne bi mais à travers suñu rapport alternatif yi nga xam ne produire nañ ko tout au long des années parce que ñun fonctionné wuñu woon seulement pour campagne bi def nañ fi ay rapport sur le financement nan la ñu as euh, nguur gi fi nekkoon nan lay jubalee ay financement da waxoon nañ ni d' accord ñu gis nañ ni financement bi ni nga xam ne moom lañ ko orienté mais du noonu du noonu dans la mesure où boo laajoon tey askan wi danaan la li ñuy dugal ci éducation dafa bëri moo ëpp li mu dugal loolu la dugal ci nopp xale yi ci nopp askan wi

jël euh, autour de cinq 6 pour cent def ko investissement alors que investissement mooy tax nga am ay gànnuwaay moo tax nga am euh, ndox moo tax nga mën a tëj euh, l'école bi loolu bu nekkee defoo ko donc doo am école bu dëgër boo amul école bu dëgër li muy jur mooy bi corona ñëwee ñun ñëpp dañoo tiit ne tëj leen l'école bi mhm. boo amul école bu dëgër mooy waral bi mu amee crise politique école di ñëw mën ko lakk-lakk bu gaaw yàq ko yàq bu gaaw bu fa amoon gardien fii xëy na boo amoon crise politique duñ ne kenn du fi yàq de mais bala nga fi yàq dana du yombee noonu. Mm. ndax tëju na am na gardien dana mën a woote et cetera. donc côté bi jëm li aar l'école bi di aar sécurité am ak protéger ko. lu weesu seulement CREI bi ak jàngalekat bi foofu defuñu si li ci war. boo jëlee toujours financement bi euh, gis nañ ni par exemple ni ñu ko tasee li jëm ci petite enfance mooy tout tànk yi te xam-xam wane na ni xale boo xam ni gunge nañ ko ci petite enfance bi muy am bi muy judd ba ni muy am euh, juróomi at kooku pour mu am qualité si jang moy moy gëna a gaaw que kii amul loolu xam-xam wane nga jël moins de 1 jox ko petite enfance kooku nguur gi fi nek war na ko corriger. Mm. ça veut dire que yow fonk loo petite enfance. Mm-hmm. ça veut dire que yow da ngay jël 18 mom moy ce mooy taux brut de de préscolarisation bo jëlé fukk xalé yu ndaw ñaar kese ñoom ñoo ci def préscolaire. Mm. donc nan ngay fexé ba joyanti lolu xaalis bi yëpp dugal ko ko fa mais pourtant ni ko séddalee euh, jubul nga jël langue nationale alphabétisation non formelle li ngay jàngal mag ñi ñëpp xam nañ ni njàng moom c'est saa su ne ñoom aussi moins de 1 pour cent moo waral euh, li nga xam ni mooy dugal suñu làkk ci biir ci biir njàng bi di manqué parce que defoo fa lu mat 1 pour cent te li nga fay dugal li muy néew-néew 75 pour cent de ce moins de 1 pour cent euh, bailleurs ñoo koy indi partenaires yi alors que un partenaire warul la financer ngay jàngale tukulóor wala jàngale séeréer wolof ñun ñoo ci war a njëkk a dugal suñu xaalis suñu suñu donc fànn yooyu ci financement bi di nga ko distribuer mais distribution bi aussi du niveau national au niveau local xoolal école yi après nan la doon fonctionné dootuñu woon jot seen seen fonds de dotation yi mu waree dañ koy wàññi nekkoon nañ fi ñu ne dañ koy def par par élève mu nekkoon je crois dem ba 4500 francs par élève dañu dem ba euh, école ya euh, man dama doon wax sax directeur yi ak principaux yi ak euh, proviseurs yi ay jàmbaar lañ ñu ñuy def ba seen école di fonctionné kat xamatu ko mhm. parce que du ñu jot seen xaalis ni mu waree mhm. matul ni mu waree heure bi ñu ko jot day yéex donc loolu aussi ça veut dire que quoi distribution entre le niveau central le bi dem ci kaw ak xaalis bi dem ci gox goxaat yi war nga ko donc. mais doyen nga bal ma la mais est-ce que parce que syndicat yi loolu lañuy xex parce que ñom fonctionnement rek la ñuy dégg ñu mais xam nga c'est normal mais syndicat yi est ko ñu fi syndicats yi dañuy xex fonctionnement parce que raison d'être syndicat la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres. le syndicat éducation syndicat santé syndicat presse syndicat de mu donc ñom c'est normal ñuy xex pour que ñi nga xam ni euh, seen i membre lañ ñu nekk ci condition yi gën c'est normal mais ni mu amee syndicat yi moi je me rappelle bi ñuy def seen euh, suñu négociation yi passé ba fay ba euh, le ministre des finances ne naa jël kàddu ma ne ko est-ce que jar na ko bëggu mën sa jël kàddu pour tëj mu forcé quoi ne par force daa jël kàddu ma ne ko nag am nga loo leen def ci question enseignante yi c'est très bien mais jàpp leen di à part de maintenant am na beneen syndicat bu mag bu tudd Sénégal hmm. boo xam dana jàkkaarloo yéen ci yeneen aspect yooyu Moy aspect ou investissement aspect ou tu vois donc pour dire quoi pour dire que syndicat yi mën nañ rôle pour nous améliorer ces conditions au gouvernement d'arbitrer moom moo xam li mu am ak li mu négocier ñoom rapport de force là, parce que quand même un syndicaliste muy jàngalekat ci boppam bëgg nañ ci mu nekk jàngalekat boo xam bu duggee classe xelam day nekk ci classe parce que man gisuma benn boutique boo xam danaan la euh, su le saako ceeb dinaa la ko jaayee francs pour les enseignant boo dul enseignant dinaa la ko ça coûte saako ceeb bi li jar donc mënoo ñëw mu am yenn écart dans le traitement euh, des fonctionnaires de manière générale de sorte que l'enseignant devient même un misérable boo xam ne xale bu ko xoolee ci biir col gi xool ko ci biir ni muy jaxasoowee sax du am envie wu nekk enseignant mhm. donc enseignant ñun dañoo ñun dañoo intérêt protéger ko fexe ba enseignant mu nekk dans les meilleures conditions am mat am lu ko mën a tax mu yore ay waajuram ba kenn du ko génnee euh, fi mu luwee xëy xale di ko gis am loo xam dala dana mën yore ay yore yore boppam ba nga xam ne bu ñëwee xale bi dana ko naw respecté ko donc loolu dafa am solo ci condition enseignante yi donc boo ko amul li muy jur mooy dootul nekk koo xam ni euh, élève bi dana ko dana ko naw et dana ko respecté dana ko jox cër bi mu war et donc dana ko dugal ci benn misérabilisme boo xam ne ñun amuñu si intérêt. mais ñëw euh, euh, non non may ma fi mu fi nga nekkoon dafa neex dafa laa dagg. non non non may ma je préfère mu continuer parce que fi mu nekkoon fi mu nekkoon dafa neex bi mu koy dagg. dictateur koy dagg non mais ñaari tontu la. c'est vrai donc moo tax bi mu la daggee ma sursauté parce que fi nga doon jëm. man foofu laa foofu laa bëgg ñu taxaw fa. parce que yaa ngi doon yaa ngi doon génne manquement yi nga xam ne moo am ci ci éducation bi te ñu war ko corriger te ñu war ko corriger parce que euh, défense de l'éducation encore je reviens ci loolu mooy yi nga xam ne moo war a indi jeexital ci njàng bi yooyu la ñu war a wax mooy yi nga doon wax nii et euh, dafa mel ni gars yi duñu leen déglu. ñi nga xam ne dañu des te man dama bëgg ñu yegg ba nga xam ne yéen ñi bu ngeen di wax gouvernement bi ak ñii fi toog a toog dañoo war a wax ak yéen. mais mais fi ma la bëgg parce que soo su ngeen génnee manquement war a corriger peut-être dinañu. dinañu dinañu dara xel sëñ Fallou mooy gars yi dañuy déglu de. Ah, pourquoi ah, duñ ko def pourquoi duñ ko def. waaw politique politique la xam nga politique yenn saa yi mu déglu la mel na ko la déggul mais dañuy déglu bu baax dañuy lire bu baax dañuy gëssu bu baax problème parce que ñoom bu ñu bindee wala ñu wax rek ñu xam ne ñii am na fu ñu te ñun ignoré wuñu du ñun kese d'ailleurs am organisation yu bari yoo xam ñoo indi ay yu am solo pour faire mais mais, le problème même vous constatez que li ñu dugal ci fonctionnement dafa bëri teg jàpp ngeen ne fañ ko war a yóbbu yóbbuñu ko ba indi ay jafe-jafe dans dans l' enseignement euh, bu ñu leen déglu woon dañ ko fay yóbbu. waaw waaw non ko fay yóbbu c'est parce qu'ils veulent pas. waxuñu sax peut-être y a pas sax ne li ñu dugal ci fonctionnement dafa bëri dañuy wax ne équilibre bi war a am entre fonctionnement investissement amul c' est différent parce que li ñu dugal ci fonctionnement bëriwul bëriwul dans la mesure où amul benn enseignant boo gis ñee ko ci ay

konte nag lépp lu ñu ci def dañ ko wante xeeb bu ñu ko xeebee defuñu ko sax pour enseignant bi mais dañ ko def pour élève bi parce que dañu bëgg élève bi en terme de référence mu jàpp ni ah ki muy gunge nekk na ci un minimum de condition donc fonctionnement bi fi ñu toll jàpp nañ sax xeeb nañ ko parce que nekkuñu si yenn conditions yi boo leen xoolee parce que ñu ñëpp xam na leen ñun ak ñoom ñoo dëkk loolu mooy benn ñoom ñëpp ñoo fépp bor ñoom mbeng

mais li mu mënoon régler ci 57000 tey jàngalekat bi am 800000 du ko ci régler. donc question pouvoir d'achat la. Mhm. jàngalekat bu njëkk ba bu ñu ko yóbboon ci àll bi waa gox ba tegoon nañ ko fenn foo xam ne nii danañ sax xëy na daggal ko sax teere na ko fii. Mhm. yaa ko moom du sax soxla coopérative xëy na d'habitat ba nga xam ni loolu moo waraloon jàngalekat yu bëri sax seen i soxna ñoo ngi jëlee seen premier mhm. gox ba dañ leen dañ leen doon attribué jox leen sax tool dañuy dem ba dëkk fa. dañuy dem ba dëkk jox leen tool donc parce que am na nu ñu doon waxee si ñoom. mais jàngalekatu bu njëkk ba ni ñu ko doon tàggatee doon nañu ko tàggat ñetti at. parce que xam nañ ni jàngale métier la. bu nekkee nekkul métier nag mooy euh, ku jóge fu ne mën naa ñëw déedéet dañ ko tàggat ba nga xam ni jikko boobu ñuy namm ñun di ko bëgg di fàttali si jàngalekat du jikko bu jékki-jékki rek yeewoo ko de. dañ ko dañ ko defar ci moom. Mm-hmm. tabax ko ci moom parce que jàngale métier la. donc loolu. moo tax gars yi bu ñu léegi nag parce que fi mu fi mu bëgg ngay yegg si yaa ngi fay ñëw. voilà donc <laughs> waxtu wi ñuy jàngal ça veut dire que. il faut pas faut pas ñuy. faut pas ñuy gént. continuer damaa bañ faut pas ñuy gént jàpp ni. Euh, jàngalekatu bu njëkk ba rek moo mën wala moo gën jàngalekatu tey yem ko foofu déedéet boo ko defee dafay simple da ngay jàpp ni jàngalekat bu njëkk ba temps ba ñu ko doon formé. conditions yi ñu ko doon teg. bu ñu ko tegoon tey ci jàngalekatu tey danga am même résultat bi parce que xëy na bi muy doogu jàng sax jàngale amono na jikkowu jàngalekatu tay bi nga bëggul yow mhm. mais biñ ko tabaxé ñetti at après mhm. da fay changer complètement Amna ñu ñun doon dàq ci biir jang bay jang jangale. Mhm. Amna ño xamni bo ñué bo excès parce que amna ño xam internal internat lañu dañuy xool ndax peñewu nga lan nga sol parce que benen image la donc temps bobu amatuñ ko formé nañu fay enseignant 45 jours métier la kenn mënu ci formé 45 jours donc il faut ñu revenir ci loolu moy waral duñu waxé waxu nostalgie mooy namaat rek ko bu njëkk ba te duñ ko tek ci xam-xam mais jàngalekat bu njëkk ba aussi boo 5 heures par exemple sangor bu doon wax si kat rek da ngay bëgg nek jangale kat dañ doon valoriser kat bi diko di won askan bi ni kat bi mom moy ki nga xamni mom moy yor li gën ci ñun mais après ñun temps yi passé la nga doon dégg si jangale bu ñu wax jangale kat rek dafa bëgg xaaliss dafa bëgg greffe donc dañ doon dénigrer enseignant bi ci biir même discours bi légui même bu nek ko lu doy nga valoriser ko ci biir wax bi ci parole yeeg propos yi rek mën na tax ñu fonk ko kat bu ñëk ba mais kat bu ñëk ba aussi fallu wax lo ah Jangan ko bu njëkk ba aussi parent ba xoolal relation bi parent bi enseignant yi la ñëw relation bi tey moom tey doyen dafa kii relation bi parent bi doon am ak jàngalekat bu njëkk ak bu njëkk ba jàngalekat bu njëkk ba bu bu sa doom def sa doom amul fitu ñëw boole ko parce que xam na ni enseignant bi ak parent bi ay complice lañ bañ nga ko ba doon am man dund ko en tant qu'enseignant ay waajur ñëw dëy la ñëw fa heure boo xam ne wóor na classe bi tëj na ne la su ma doon tel moo ngi def nii ci kër ga temps yi léeg léeg lii def yow lijjantil ma ko donc amoon na benn complicité tey laalal benn xale soo deful ndànk prison ngay mujj c'est du ñu ñëw sax déjà pour xool donc li waral jàngalekat bu njëkk ba amuloo ko ba tey tegu na ci temps de formation yi wute tegu na ci wax bi nan lañuy nan la ñuy waxee si ñoom tegu na ci waajur bi ban place la tek euh, kat bi pour ñu am ben complicité parce que xalé dama yago dañ koy sop xalé dañ koy sop damay dégg ñu né ci kër ga lañ koy jangale lepp kër ga amna lu muy def école ba amna lu muy def mbedd bi amna lu muy def yeen presse bi am nga leen def mhm. donc ñoñ nga xamni dañuy agir ci xalé dañu war di déggante mais tay est ce que déggante bi amna donc jangale kat bu njëkk ba loolu moy waral évidemment que xeyna amulo yow li nga bëgg mais euh, boo bëggon changer loolu nak da ngay dem da ngay baña yëm kess ci li gis xam nga Sénégal nee nga bëri na ay mbir yoo xam ni nit ñi wax nañ ko gëstu ko te taxul ba tey ñuy def sur place avancé wuñ ci mais li koy waral mooy ñun duñu nekk jamais sur les sur les vraies causes booy faj feebar nit ñëw na la suma bopp day metti lay boo ko bëggee faj da ngay seet lu tax bopp bi metti te loolu mën na sorek loolu li ngay gis mm-hmm. donc il faut ñuy dem ci véritable cause yi pour trouver de vraies solutions li nga xam ne ko si def jàpp na ko te Sénégal xëy na nguur gu bees bi war na ci bàyyi xel mooy Euh, système buy dox day am problème c'est comme nit nit buy dund da ngay am problème plus ngay màgg ngay feebar dem fi ñu toll ñaari fan ñett sëñ Fall n'est-ce ñun bu ñu commencé di jëm mag commencé di gën a gisante ak docteur loola laal tuuti boo xawee daanu sax fa am donc système buy dund day am jafe-jafe mais liñ dul nangu mooy même jafe-jafe yi di ñëw donc il faut ñu am dispositif boo xam ne naan problème bi dañ koy faj abadan dem naa Japon waxtaan ak ñoom Nagoya ñëw di bàkku ne la ñun def nañ assise de l'éducation 2014 ah oui nan la ñun wax nañ ñëpp lañ dajalé tam dañ ci gox goxaan yi di baaxu de en bon sénégalais am nañ sax plus de 360 recommandations yoo xam teg nañ ko ci bi japonais yi ree ma ne ma kon yéen ñoo ngi doog a xam lu tax seen problème de sotti parce que mënuloo ñëw ci biir ay assises nga am ci 360 recommandations mu ne ñun japonais ñi def mooy at bu jot dañuy am deux ou trois défis ñu régler ko définitivement mais mënuñu ñëw te ñun li ñuy bàkkoo mooy euh, waxtaan bi séminaire bi ëpp njariñ mooy séminaire bi la ëpp ay recommandations

c'est vrai que nekkul nekkul avocat <laughs> que nekkul non tey secteur am la c'est que ko si def nekkul nekkul avocat avocat enseignant yi mais c'est vrai que ko si def nekkul avocat enseignant mais bëri na si problématique yoo xamante ni lim na ko fi sànq mais lu ci bëri enseignant dañ ci am responsabilité su fekkee di parents yi aussi ñoom dem nañ ba sa waratun dem école c'est parce que enseignant yi doo leen fa fekk li nga fay fekk mooy tout le temps ñi ngi si grève bi tout le temps yaa ngi sa doom bi nga doon indi si kër gi doon ko jàngal léegi mënatoo koo jàngal ndax rupture am na dèjà ñun mën ñoo jàngal su ndax yi bokkuñu programme bokkuñu dara ñun lii lan la daan jàngal léegi texte lan lay jox donc loolu lépp ay problématique yoo xamante ni enseignant yi am na ko si donc suñu waxee état yi nga xamante ni moom faay na ci yoon lu aussi en tant que nit ñoo xamante ni da ngeen a boole ñëpp ñu wax enseignant bi ban taxaway la war taxaw ba nit ñi tey di am envie nekkaat enseignant parce que tay liñ ci sétlu moy da ngay dem ci école sax surtout ñi nga xamante moy surveillant yi bu ñëk ay mag ñoo doon nek surveillant mais légui suñu morom nga fay fekk da ngay gis ci école primaire da ngay dugg man sama raq bu def sey jël na diplôme ñu defar ko lecture 1 mère ni ma mënu lire man ko donc yow lan la lu tax ñu lay fay parce que élève bi dañ koy indi pour nga jangal ko su demee ba sey te mënu C2 te mënu lire ça dit que fay amna loolu yëpp ay points la yoo xamante ni aussi enseignant bi am na si responsable te yaakaar naa ne war nañ koo mën a mën a sensibiliser aussi boo tey suñu waxee état am na faay bi enseignant bi tey ñu wax ko moom faay bi mu am. effectivement enseignants yi am nañu responsabilité dafa maa laaj ci enseignants yi ma doon ma tontoo foofu mais boo ma laajee enseignants yi su suñu jàngat ñun lan la ñu gis ni mooy seen responsabilité bari na ci aussi parce que enseignants yi euh, dem nañ ba nga xam ni loolu ñu tuddee euh, seen syndicat yi. Mm-hmm. bëri waay bi indi na wut yoonte même bu nekkee dem nañ ba wàññi à travers les actions de représentativité bi tax ba ñu génnee ne ñii ñoom ñooy ñu toog ci table bi du tey wujjante boobu mooy waral ba yenn bu am contexte boo xam da nga pour ma exister pour ñu xam ni il faut me indi grève teg ko ci table bi donc loolu mbir la boo xam ne aussi ci responsabilité syndicats Ben la responsabilité mooy syndicats yi ñun on se rappelle bi ñuy gën a nekk jeune enseignant mais dafa doon am dispositif de formation pour xam dans dañ lay jàngal en plus de li ngay jàng ci fi amoon na benn dispositif xam dañ lay nafar mais tay syndicats yi comme parti politique yi li ñu wax accompagnement de leurs membres manqué na en termes de renforcement de capacité loolu mbir la fàttalikul syndicalistes yu njëkk yi bu ñu mosoon wax euh, nan nga leen di déggee da ngay xam ne ñii dañuy fexe ba li nga xam ne moom mooy seen outil dañ koy maîtriser danañ xam lan mooy seen plan sectoriel xam fépp fépp fu mu lalu xam les engagements au niveau international donc yooyu aussi formation wu euh, yi nga xam ne syndicats yi yoral nañ ko jàngalekat yi euh, loolu aussi benn fay la boo xam ne mën nañu ko ci gis beneen bi moom mooy nag la question de la motivation euh, jàngalekat yi en terme de motivation seen motivation yu bëri des na bëri na ñoo xam dugg nañ ci corps enseignant te du woon seen jum jum jëmukaay dañ leen di këf dugal leen volontaire vacataire et cetera bëri na ñoo xam ni de euh, d'Inde et cetera donc amoon na fi ay système de forme de recrutement yoo xam ni du basé wu ci nga am vocation bokk la ki nga xam ni bon je vais citer aussi un autre doyen parce que j'aime bien illustrer par des exemples ma jën fay ndem si yàlla moom barki dem la wàññee ko yàlla na ko yàlla yërëm doyen méjee fay deewoon na moom bi muy nekk jàngalekat sëy yi rek mooy bi ko xon sëy yi mooy sa doom sa doom jooñ nga wax c'est-à-dire xale bi mosul téye bi mu gunge ko ba mu téye bi bu ko mosoon def pour moom ay milliards la donc moom satisfaction la am ba nga xam ne ay moromam def nañ concours yu ne pour def ENA ñii def nañ concours pour nekk inspecteur mais mosul nangoo def benn concours parce que dafa trouvé woon du plaisir à avoir des enfants yu nekk sëy donc vocation boobu bëri na si bëri na tey enseignant yoo xam ni ben écoute éducation tremplin la dañ ci jaar jàll mais le mais mooy lan moo lan la ñu war a def nag pour nga xam ni euh, euh, système éducatif dana am dana nekk système éducatif bu attrayant nga xam ni ñëpp dañuy daw ñu mën si ñun dañuy daw pour nekk jàngalekat bu njëkk concours jàngalekat ah ñun de bi ñu koy def bëri na suñu morom ñu nekk la woon université def nañ ko benn ñaar ñett ñeent yoon di laj du ku nekkoon jàll jàlloon beneen concours moo gënoon yomb parce que les meilleurs ñoom ñoo doon nekk les enseignants aujourd'hui ce n'est pas forcément le cas donc responsabilité et responsabilité partagée là mais qui dit ki am responsabilité première moom mooy état parce que état moom mooy fajee loolu nga wax problème motivation mon koy par la formation mon koy for par la motivation financière ak matérielle ba nga xam ni nit ki dana am envie wu ñëw toog des fa moom moo par des questions d'équité et de justice ba nga xam doo jàpp ni dafa am kumba am ndey kumba amul ndey même etc. Mon moom moo non faje noonu en terme de par ni muy parce que japonais, ne ay agent lañ dafa mel ni Prestige TV am nga ay agent yoo xam ne recruter man bi nga xam am enseignant ñu ay fonctionnaire M'a leen recruter su may agent lañ waruma am droit am nu ma leen di dénigrer ba yi du ko donc pour man responsabilité bi foofu lay fêter, mais responsabilité aussi boo amee donc nga beaucoup hiérarchiser boo ko hiérarchiser nag état li mu am muy ëpp loolu jàngalekat bi parce que jàngalekat bi même bu faites moo ngi def ni nous ni mu warul def ci Tu école ba ci di day tardé bu tardé sax état bi ngay ñëw

évidemment que doo am doo am li nga bëgg. waaw donc rapidement donc ma ma ma ñëwaat ak euh, ak DE euh, ci li nga xam ne mooy relation euh, vu le contexte li nga xam ne mooy relation école ak politique gis nañ que comme ni ma ko waxee sànq benn pendant une longue période école bi dison politique bi en tout dugg na ci biir école mën nañ ko waxee noonu. Mm-hmm. parce que am na impact sur le. Euh, sur le sur les apprentissages enseignement comme ni ñu ko waxee euh, ba nga xamni yeen yéen ñi ngeen xam euh, da nga nek ko di ko observer loolu yëpp gis ko d' abord une processus bi ñu muju dundu yeen yeen yan impact ngeen gis yeen yeen problème ngeen gis lo xamni c'est lié à la politique au niveau des écoles. Mm-hmm. mais ensuite aussi lan ngeen di lan lan ngeen di proposer pour que de tel fait wala de telle situation ne se renouvellent plus. loolu benn la mais par après amna nak après ay questions yu ma ay gars yi envoyé après naa ko. amul ben problème légui

nous devons faire des propositions, et def ci ay Madame, def ci d'alerte ay la élection 2024 nous ñun pas commencé en 2019 2024 élection éducation face à euh, politique mhm. éducation politique nous en avons largement parlé donc en termes de proactivité technique nañ fi des campagnes non vacances pour l'école jël ñetti vacances des vacances. yi am nañ droit de vacances jàngalekat yi yore des am nañ droit jël vacances mais nous, leader amuñ droit vacances nañu nañu fexe bay waxtaan ci biir vacances yi bay taxañ loo xam ni mooy tax ba déwén gi at bi dana mën a jaar donc on est pro on pense être proactif ñoo ngi ciy góorgóorlu ci fànn boobu mais comme tu dis Euh, Sénégal dëkk événementiel la euh, booy wax lolu ci jamono joju xena na Ismaël sax duñ la jox micro bi. c'est ça duñ la sax faale parce que journaliste mom lim mu bëgg mooy. tey am lu ben daanu la ñu nekk wax ci donc. dootul ah, tey ñu li xew tey. non c'est vrai Cheikh daaw ñoo ñëw fi fii. ñoo ñëw nga fii waaw li nga wax ni je me rappelle ci bari yaa ngi doon artu ba fi ñu. jëm artu nañ ci lolu bon maintenant nak est-ce que artu yoy ñu ko doon tek diko indi wat di fatali wat dañ leen déglu duñ ko duñ ko duñu déglu parce que lolu moy xam nga Sénégal dañ naan am na bateau le Joola coow li am na ñun ñëpp ñu nekk ci coow li bëri ñu jël ci ay mesures émotion xëy na sax ku nekk ne man dootuma bokkati di ji di surchargé mm-hmm. mais après ñu fàtte ko mm-hmm. déggoon naa problème mu bébé yi la mm-hmm. temps yële xamatuma su na la mujjee c'est comme ça qu'on fonctionne et loolu bu nekkee ñoo ngi ci nekk euh, organisation bu nekk ci alerte jamono bi muy alerte moi je me rappelle bi ñuy alerte ci affaire éducation politique am na ay kilifa en réew mi li ma woon ne ma yow doo ñu may jàmm. élection yi politique bi doom benn problème ci kii comme extra. je dis mais justement ñun loolu la ñuy ñaan. mais pour ñun maîtriser waxtaan ci risque. Mhm. day tax nga maîtriser risque bi. mais ñun duñu ñu nangoo sax dugg ci loolu. donc loolu pour man moom mooy euh, pour activité bi nga xam ni bi nga xam ni wax léegi nag sëñ Mbengue ne politique ak éducation xamuñu dañu jàpp ni école euh, lépp luy dal askan bi par force da koy dal parce que école bi. société am miniature la. Mm. ñi ne ci école ba fu ñu jógee ci askan bi la ñu jógee. Mm. ñi ne ci école ba kan la ñuy xool waa askan bi la ñuy defee la ñu. Mm-hmm. donc bu amee ay crise politique ba euh, euh, parti politique di waxante lu gën a ñaaw. gën a ñaaw. Mm-hmm. ñoo wax yu gën a ñaaw di dóorante nga seetaan leen télé ngeen jàpp sax ay journalistes yoo xam ni invité bi gën mooy invité bi gën a xasaaga bi tëb di dal mm-hmm. jël leen def leen référence ba nga xam ne pour yow. boo bëggee nekk champion boo nekkee koo xam ni xale yi war na la naw da ngay am buzz am buzz nag mooy wax lu kenn sañul wax def lu kenn sañul def loolu mooy buzz mm. or ñun dañu jàngaloon ni nit mën nga am flow wax li ngay wax mais nga def ko ci teggin ñu pousse loolu parce que boobu su ma ko defee émission bi am teggin boobu doo am sax ay ay clics yu bëri doo am buzz yu bëri donc comment faire pour changer cette donne là mm-hmm. mooy waral ñu jàpp ni relation bi am entre éducation ak du politique kese ah, ak crise bu mënti am ci askan bi dafay daaru ci mm. éducation bi mais la différence mooy bu daanoo ci école bi dañ ci espérer école bi nekk laboratoire pour askan Madame, maanaam bu fekkee ni askan bi ñoom ci ci ni de dundee dañuy lu ñaaw di gaañante di def violence mu problème insécurité na mais école bi xaar nañ ko ci mu tabax ay tontu ci nan la ba askan crise sanitaire nit ñi voilà di ci choléra école bi nam dañu ko dund parce que ay doomu école bi jong ngi si askanu jóge mais école bi ñoo koy xaar ci mu indi ay tontu ci crise sanitaire ba bu amee crise environnementale na noonu donc relation dialectique boobu di am entre politique ak éducation nekkul loo xam ne mën na dañ mais éducation dañ koy xaar si mu bañ a nekk si instrumentalisation mooy politique politicienne mooy man jàngalekat la comme ni ngeen ma bëggoon defloo sànq ne mën naa wax ban candidat moo gën man jàngalekat laa ma nekk ci classe bi naan kii moo gën kii et cetera loolu mooy instrumentalisation euh, bon kii dañ ko néewal doole génn leen kii euh, li mu def baax na tàccu leen ko et cetera donc instrumentalisation politisation système éducatif bi loolu mooy li nga xam dañ koy dàq mais li war a gën a politique mooy éducation parce que li politique moom mooy euh, ban gis-gis nga am ci nan la ñu war tabaxee suñu réew. li ñuy fexe ba réew bi ñu bëgg fii ak 50 ans 100 ans mu mel noonu ban gis-gis nga si am kooku amul kenn ku war a gën a politique euh, enseignant mais par contre li ñu nangul mooy enseignant boo xam ne nag dafay nekk dans la politisation moom mooy mu am instrumentalisation ba nga xam ne l'école bi dafay da nga koy pousse ci mu dund querelle euh, politique yi am mais loolu pour nga faj ko y a contre ah oui ñun première mesure bi ñu waxoon mooy et bokk na ci impact ñu dund d'ailleurs euh, pour faire le lien avec ce que Mbengue disait première mesure mooy il faut nga am ay kilifa yoo xam dañuy dépolitiser wu déjà parce que ki nga xam moo war a surveiller pour mu bañ am politisation ci l'école bi bu fekkee moom sax amul jotu l'école bi ndax moo ngi def campagne moo ngi uti parrainage du am kuy surveiller ki war a def loolu donc ki nga xam ne moom moo am responsabilité bi il faut d'abord ñu dépolitiser ko or uh-huh. ci impact yi nga benn ci impact yi ñu gisoon mooy jamono yi euh, jamono yi élection bi ñu koy dund mais amatu woon sax autorité éducative absolument amatuloo ministre ñoom ñëpp ñoo ngoon ci terrain bi ñoom ñëpp ñoo ngoon si politicienne bi donc voilà bu amul loolu ça veut dire que école ba nu nekk mën na ko mel loolu benn impact la bu ñu dund beneen impact bi ñu bi école bi dund ci coow coow politique bi moom mooy violence yi am na école yoo xam ni toj nañ ko dama Ziguinchor si euh, université tëj nañ ko 7 8 mois mhm. te dañuy wax rek euh, wax naa ko kilifa yi ma jot a toogal euh, mais en réalité la raison elle était politique surtout du leen élection yi kese la pour preuve bi ñu demee ba wax dañuy calmer le jeu dañu ubbiwaat donc xale yooyu te xale yooyu nek étudiant bëri ci si ñoo xam sa nekkuñ si benn parti politique ah forme fenn mhm. ñooñu ñëpp nga gaañ leen ndax benn groupuscule boo xam dafay nekk ci parti politique yow état amuloo amuloo fit amuloo moyen pour protéger l'université ba nga xam ne turbulence yi am du ko dund loolu benn impact la boo xam ne dund nañ ko absolument eh, te loolu day mën a répercuté wu ci programme bi bien sûr nan lañ koy nan nan lañ ko defee beneen répercussion mooy waxtaan bi waroon am pour que système éducatif bi mën a am dal ba ben, amatul won pendant pendant période électorale élection bi yëpp. Euh, répercussion moy euh, comme ni ma waxé puisque élection moment d'apprentissage là la l'indon yi li qui doon li ñu doon jàngal ci euh, et par conséquent yooyu yëpp ay impact lo xamni école bu dund tibir ci biir élection yi ñu alors que élection de war moment de fête comme j'ai dit de war moment de bénéfice ça à dire xalé bi ci biir waxtaan bu positif bi am ci biir campagne des préparation élection bi da ciy gën a xamee droit gën cee xam ni li muy jàng ci école ba ñu koy wax séparation des pouvoirs nan la koy gisee ci biir askan bi li muy jàng ci yenn valeur mu bañ a nekk kese xale comme xale sénégalais comme ñun ñëpp d'ailleurs ça c'est le système francophone souvent damay tooñ loo ñu laaj ñu réciter la ko on est très fort dans tout ça récitation mémorisation on est très fort booy mhm. loo leen laaj ñu wax la ko ah. lan mooy citoyen moderne ñu wax la ko euh, nan la ñuy lutter contre choléra ñu ñu ñu ñu la ko mais en termes de compétence <laughs> d'attitude loolu aussi dafa war nekk lu ñuy xool te loolu li koy régler moom mooy xoolaat suñu système euh, d'évaluation suñu système d'évaluation nan la ñuy nattee xam-xamu xale bu nekkee dañ koy natt kese si approche francophone boobu ñu xam mooy récitation ki dàkk récité ki gën a mën a euh, voilà récité li mu bind loolu moom moo ci évidemment ça va poser problème mm-hmm. donc il faudrait évidemment que mm-hmm. ñu ñu ñu gis cette euh, relation dialectique entre mm-hmm. Euh, ce que se passe dans la société et l'éducation. mais mais mais bu ñu aussi. boo paree doyen ma daal vous may. waaw waaw mais mais mais que que euh, en même temps que nous sommes nekkee donc euh, disons sentinelle pour la défense de de l'éducation publique comme nous le euh, mais en même temps aussi membre de la société civile la te gis nañu que société civile que a un rôle qui est am bu am solo est-ce que vous pouvez nous wax ah, ci COSIDEP lan moo nekkoon disons position par rapport que euh, euh, disons euh, situation école bi parce que gis nañ que ben moment que c'est def beaucoup na ci art Sénégal wax un na ci anticiper tout à l'heure mais bëgg de nga nous développer ñu gëna xam que le rôle la joué dans l'apaisement de la situation politico-éducative boobu ko mën a waxee mais un suñu suñu rôle bi ñu que jouer c'est même avant ñuy nekk ci plateforme yoyu moy fexé ba. Euh, sans que je crois que nous na ko wax entre entre Daouda Seigne Fallou ak Seigne Tafa fexe ba suñu rôle d'influence pour que nous bañ fait l'éducation éducation ci jamono yi politique. Mhm. joué nañ yaakaar nañ joué nañ suñu rôle. Euh, bon tout ci net bi comme je dis ngeen c'est un confrère et conseiller yi a yoon la ñuy nous bay baisser ak euh, actualité politique pour que dans l'actualité nous ñu fait l'éducation. éducation. loolu pour ñun rôle la boo xam ne ko ci joué parce que waruñu fàtte ni capital humain bi dans tous les cas mooy porté. Euh, proposition yi nga xam ne moom lay candidat yi def loolu joué nañu ko ci benn rôle bi ñu si joué mooy rôle collecte de données bi mu amee jafe-jafe yi am yenn école yoo xam ni affaire bi laal na leen ñun dañoo dem ci terrain bi pour am ay données ensuite accompagner école yooyu pour ñu mën a refonctionner loolu aussi joué nañu ko ci ñun euh, principalement par rapport à ça y compris au niveau de l'université loolu joué nañu ko ci loolu beneen rôle bi nga xam ne joué nañu ko ci mooy rôle facilitation mooy yenn saa yi am na ay jafe-jafe yoo xam ni dund nañ ko à cause politique bi mais mu impacté l'école bi ñu fexe ba acteurs yi nga xam ne ñoo nekk seen biir ñu dajale leen pour ñu jéem a trouver un consensus épargner l'école des jeux d'acteurs politiques yooyu c'est des c'est des rôles qu'on a joué euh, beneen bi moom mooy yi nga wax nag maintenant ci plateforme yi ci plateforme yi euh, bi mu amee coow 2021 par exemple dugg nañ ci plateforme bu ñu tuddee SOSP nga xam ne ñun dañ doon xeex pour que euh, évidemment que jàmm mën a lalu ci biir durant durant élection parce que mooy jamonoy crise bu metti bi rayante bi coow lu bëri la et donc nek nañ ci plateforme parce que dans tous les cas ku si nekk mënta woon isolé mm-hmm. ci biir société civile. il fallait mu bokk ci biir mouvement société civile positif yëpp. te mouvement yëpp muy plateforme SOS muy plateforme mesure ba des plateformes yoo xam ni duggoon nañ ci parce que simplement d'un doon bëgg que ñoom seen biir analyse ak seen lecture ñu mën ci intégrer la dimension éducation. amener na en terme d'orientation en terme même ko fortement. moi je me rappelle bi mu mes violence yi. Mm-hmm amener organisation de la société de de de vos amis là de la presse yo xam def nañ ben étude qu'ils ont appelé comme violence euh, dans dans le milieu de la presse am ça ben xarit bo xamni mo gouvernance politique def violence en milieu politique étude ñun ñu bëgg def violence en milieu scolaire je dis aux gens là à mes amis de la société mais écoute euh, c'est pas comme ça le problème nous ko régler de manière euh, sectorielle séparée on ne peut pas réfléchir sur la problème de la violence en disant moi je fais violence en milieu scolaire qui violence en milieu de la santé qui non c'est une question globale qu'il faut adresser de manière beaucoup plus... Ah, donc, il y a une contribution. Art, c'est une élection. Nous avons fait parce que, évidemment, nous élection de Wadjenyo, bon, le président a reporté. Euh, nous, tant que nous avons fait sous clé USB manquée, qui de Fodor, qui... Parrainage. Nous avons fait mais on a été agressé fini ñu sentir suñu que ba nga xam ne mënuñu woon bañ parce que Bob c'est le c'est le citoyen tout simplement qui a été mooy ñu bëgg perturber le calendrier électoral loolu on s'est dit écoute ñun buñ ci noppee on devient complice il faut ñu ce askan bi le calendrier électoral dafa faire loo xam nous ñun ñoo ko jàngal suñu doom ci l'école bi et par conséquent dafa war a am benn position bu ci euh, dans la vie on xam nga ni tabaski day am Korité dana am Pentecôte am 31 décembre il faut Sénégal ñu nangu euh, bis sangam dana war a am élection ñu jëm ci maintenant yenn faux arg yenn yi nga xam ne argument yi nga xam ne mën nañu teg parce que argument pour argument mënoon nga teg argument bu ne pour jëlee ko fi wala xëcc ko wala puus ko ñun loolu jàppoon nañ ni du woon du woon suñu loolu moo ñu dugaloon ci aar suñu suñu élection ñu dugg ci pour fexe ba nga ba suñu li ñu tuddee suñu constitution ñu respecte ko parce que ñun loolu la ñu jàngal suñu doom wax nañ leen constitution moom mooy suñu livre sacré ensuite euh, voilà xeex ko biñ ci nekkee it joué suñu rôle joué suñu rôle mooy fàttali lan la ci éducation war a def euh, biñ ci pare it biñ demee ba nga xam ne élection yi nangu nañu dana am président de la république dina joxe léegi le 2 avril ñun dañ ne nag euh, aar suñu élection def duñu fa dara mm-hmm. et je crois que aar suñu élection sax euh, moo ngi ci yoonu désactivé wu parce que jàpp nañ ni évidemment que li taxoon ñu juddu réglé nañ ko ku nekk nag nga delluwaat sa kër def li nga war a def euh, pour le pour le Sénégal. alors merci léegi euh, on est pratiquement ñu ngi ci mi-chemin wu émission bi damay jox ga Assane Diagne moom it euh, bu fekkee am na laaj wala contribution boo xam ne bëgg na ko indi ci waxtaan bu ko defee rek dugg nañ ci élection yi daal di jàll nag. ci ah, beneen pàcc bi jëm ci li nga xam ni moo di les attentes de ce nouveau gouvernement. merci beaucoup Ismaïla maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñu nekk ci plateau bi moi je l'appelle mon grand chef parce que li c'est le mouvement scout donc il fait partie de nos formateurs nationaux et même internationaux donc on a euh, ñu dajee plateau bi a respect, a le respect donc euh, mat en tant que donc élément c'est comme ça que nous nous appelons et j'avais voulu lui réserver une surprise euh, en amenant les jeunes scouts dans, dans, dans le truc, mais malheureusement, avec ni tombé, avec, euh, avec euh, l'élève Khadrebi, mhm. donc les jeunes sont engagés. ci lol motax ba finalement mujj ñu mujj ñu won mëna ñëw euh xéna fi nga fi nga terminé ñu ñu ñu saluer vraiment les li nga xam si COSYDEP teg na ko euh, ci processus bi ni parce que nous avons été ensemble au cœur de de de de ça depuis SOS paye à son élection ba entendre un peu les les les différents candidats. Mm. donc et puis ñu saluer vraiment le rôle majeur de ci bi ci ko Deb Deb man na sont pas mes questions propres mais ay yóbbante par rapport à la configuration euh, attelage gouvernemental bi li nous avons avec des profils Moussa Fama Begrassi, au niveau de l'éducation euh, euh, Kenen ki Abdourahman Djouf, Diouf euh, enseignement enseignement supérieur selon les profils pensez-vous que suñu inversé woon du gën wala bok est-ce que ce sont des personnes yi nga xam si kenn ne fi la même bu dul loolu sax bi ñu au du point de vue un peu ni composer, composé composer, ñu composé dañu boolewaat éducation ak formation professionnelle il faut il fut benn moment dañ ko dañ ko dañ ko éclaté woon dissocié ko est-ce que peut-être à ce niveau-là pensez-vous que Bob Moy, euh, posture bi nga si et est-ce que li en matière d'attente pensez-vous parce qu'actuellement, c'est Diomaye qui dirige pensez-vous avec li proposé comme comme programme en matière d'éducation est-ce que lolo aujourd'hui peut-être mais actuellement là là là on connaît un président on sait ce qu'il veut mettre en œuvre

Est-ce que, actuellement, vous pensez que l'éducation non formelle est suffisamment prise en compte dans le cadre des politiques donc, de l'État Non, là, je vais être catégorique pour dire non. Éducation non formelle, place utiliser nga mouvement de jeunes yi devons type d'éducation qui est euh, complémentarité parce que da nga am ay offre différentes am nga l'éducation formelle suñu école yi nga xam am nga non formelle bi ñun fi ñu jaar ñuy def scoutisme ñu def pionnier ñu extra ça c'est important am nga daara yi donc lu ñu fexe ba ki génn ci daara ba du ne man maa gën ki génn ci l' école bi ci l' école classique bi ni ñuy fexe ba ki génn ci l' école bi su l' école classique du ne man maa ëpp xam-xam ki jóge ci daara yi nu ñuy fexe ba mu ku nekk jàng ci sa beneen type d' éducation euh, jàng ci moom ba nga xam day am benn commerce entre les offres loolu am na solo non formel moins de 1 ça veut dire que joxuñu ko fu la bi war ci non formel si nga mën a rattrapé wu parce que moo la doon permettre sa nga régler loolu nga tuddee euh, le taux d' analphabétisme xoolal ñaat ñaat ñaata nga am plus de 54 pour cent d' ah. te nee nga nul n'est censé ignorer la loi ah, alors que kenn sénégalais sur deux jàngul A di B jàng ko ci français jàng ko ci anglais jàng ko ci wolof jàng ko ci tukulóor jàng ko ci séeréer jàng ko ci benn donc kooku nga ne ko tu n'es pas censé ignorer la loi heureusement que la presse est là sans xaw naa leen euh, xaw mais la presse a comblé ce vide ni muy def émission presque débat yi am ñëpp danañ fexe bi mais am ay débat wolof comme bu fait de sorte que loolu élevé le Sénégal donc non formel bi place bi ñu ko jox des les mouvements associatifs yi nga xam ne ñun moo doon tax ba du ñu li ñuy wax oisiveté doo woon doo woon am temps booy perte yow ak man bu vacances jotee ñoo ngi ci camp ya ñu ñu jàngal leneen si ñu jàngal bonne action quotidienne bëgg sa bonne action chaque jour boo yeewoo booy dem bay tëdd war nga xool naka ndax tey defal naa suma réew loo xam ne action bu baax la mhm. bonne action dañ ko doon surveiller c'est la ñu jàngalee maa yow le fort protège le faible mooy yërmande danañuy fexe ba ñu am benn benn yërmande par rapport ak ñu gën a vulnérable ah, ba nga xam ne du ñu égoïste du ñu jël àdduna rek yemale ko suñu biir jàpp ni man li may liñante mooy suma poche kese mais di sóor ki gën a ñàkk néew loolu lañ jàng maa yow dans le scoutisme loolu aussi lañ leen fexe gunge par rapport à ça donc yooyu yëpp nag ay ay ay ay compétence loo xam ne sànq maa ngi koy wax soxna si euh, doo ko jàngee suñu école classique yi donc nan ngay mën a fexee ba xam ni école gis nga tant que ñoo ngi jàpp ni éducation dañ ciy am benn perception scolaire éducation égale école dañoo ngi jum bu ñu seetee fépp foo xam ni plage ba war nga fa mën a def benn aménagement sur le plan même de l'environnement lettré ba nga xale buy ñëw sax pour foot pour football ci wala pour fay si dina fa jàngaale kuy ñëw dana këf dara école euh, seen télé yi war nañ am obligation de l'un bon pourcentage pour ramener démission démission euh, démission éducative yoo par force de ngeen pour mon bénéficier ou qui ci ci appui état yooyu ay action et rani xam de mes ci les les les ni xalé bi yang koy koj fu yang koy ne le ci parce que bire école bi sax yaa set pendant récréation bi est-ce que personnel d'appui bo xamni ni bu kat bi de ba génn ba libérer ko ci bir récréation bi amna amna am soxna si boo xam ne moo wala serigne bo xane mo ngoy xol lolou ma loolu opération fat fépp. fat fépp xale yi da nga leen di fat fépp parce que lolou boko deful sans fat len quand même sans fat len parce que xale da war a épanouir dafa am droit au loisir sans fat len mais tu dois les surveiller meilleur exemple bi moy Inde. Inde moi j'aime bien faire du voyage aussi hein voyage pas forcément physiquement mais di gëstu lu xew feneen voyager da lay yóbbu Inde Inde dafa am lo xamni euh, mang koy ñaan ñi fi nek ñu tricher ko parce que tricher lu bax baxna wadi waa na bu waxat bul waxati tricher dañu wax inspiré j'ai un ami qui me dit ça parce que ñom dañuy am luñ tuddé fiche élève bu ne booy dugg sëy am na benn fiche ñun xëy na sax am nañ fiche fi Sénégal mais fiche bi bon déjà est-ce que ñoo koy suivre ni mu waree c'est pas évident ensuite même buñ ko doon suivre ni mu waree ci bi école bi lay yem mais fiche ind bi xam nga lan lay def dana suivre xalé bi ci classe nan lay comporté woo dana ko suivre ci pendant récréation lan lay fowe lan moy waxtanam nan lay jëfé dana ko suivre buy ñibi am un dispositif parce que dafa am des organisations communautaires yuy liggéey ak école bi ça danañ ko suivre ci kër ga ci collaboration man part complice la bi am entre jàngalekat bi ak waajur bi ba xam ne xale bi xam à peu près même ses talents dañ koy xam parce que xam nañu moo ngi ci école bi mais booy bi booy bi da am benn penchant football tu n'aurais pas perdu un hélas Diouf qui, oh. le système a dit il est nul d'accord. après ndekete il était excellent ci football tu n'auras pas perdu un, je sais pas, un autre. Euh, un Sadio Mané. Tu n'aurais pas perdu un, je sais pas, les hommes de culture là, waykat yi. tu n'auras pas perdu beaucoup de suñuy kilifa yu nekk fële ci Sandaga yoo xam ne système bi def na leen yéen ay nulaar ngeen dàq leen mais c'est parce que système bi daf leen wax ay nulaar ngeen que ñoom tey ñu réussir ñoom ñoo ngi waxtaan ak pourtant euh, le le l'entre oui la la l'entrepreneur euh, euh, chinois ou japonais te kenn du ko nax te mu ngi ciy génn si nga doo woon perdre xale bi nekk tey mécanicien su koñ bi nga xam ne yow prof mécanique bi nekk lycée Limamoulaye wala ban lycée technique newoon nga kii xamul dara ba dax ko te yow boo paanee ci ci garage am ngay gaare parce que bu la bu la sotti donc nan la ñuy fexe ba mu am ce commerce entre les offres ba xale bi mu am benn fiche boo xam ne da koy suivre ba di mën parce que kenn ñu laal amul benn xale bu ñu laal ku nekk am nga benn talent ki doon mais ñun suñu système d'orientation mayewu ko parce que suñuy classe fees na feesaay boo xam ne jàngalekat bi mënul suivre xale bu ne

mais compréhension am dafay yéex. am na xale boo xam ne aay na trop de mais du am note baax parce que doo ñëw di déyante ak moom ci nopp da nga war a téye digam da nga war a wax ak moom dafa soxla sax kay xam ne benn amour benn. approche approche. donc loolu yëpp nag condition yi ñu nekk école bi nekkul norme mooy waral ba xëy na doo am doo am résultat. donc daal au total hein? <laughs> man am na koo xam ne bu bindul du comprendre. du comprendre li bind lire ko. waaw pour mën koo mën koo capter. du ko waaw am na koo xam ne boo. defee xel du dem donc yooyu yooyu mooy aspect yi nga xam ne pour ñun euh, war war nañ ko jël te nga ko maintenant tu dis gouvernement actuel euh, naka naka lañ ko gisee bon man j'aime pas trop si suñu waxtaan ci gouvernement mooy dugg par les hommes par nit ñi parce que xam nga damay respecter comme ni may xeexee pour que ministre bu fi mënti jaar na ñoom ñu may seetal xam nañu ko may wax ni bon on a des rôles différents te il faut ñu nangu ko yow ministre nga kee syndicaliste la man ONG la donc suñu bëggee juboo rek da ngay nangu ni man damay indi alternative di def ay ay ay critiques damay dem ci terrain bi di di vérifier li nga wax lan nga li nga waxoon ni moom nga diggee par exemple le président Diomaye la li mu wax gum yëpp bind nañ ñun jël nañ ko le président le le premier ministre euh, Ousmane li mu wax yëpp benn jël nañ ko dañuy am suñu monitoring suñu dispositif de monitoring ah non bul bul bul jaaxle fii ak un an deux ans ñu ne par rapport ak tel engagement bi ñu jëloon ñun bi ñu demee ci terrain bi li lañ fa gis bu nekkee loo xam ni ànd naag méngoo naag li mu waxoon ñu tàccu bu méngoowul ak moom ñu fësal ko donc boobu ñun fonction la ñuy am ak képp koo xam ne mooy régime maintenant gouvernement bi je disais du ma wax ci nit parce que damay respecté ku nekk si prérogative président de la république moo am prérogative bu tànn ay nit parce que moom la ñuy àtte suba d'ailleurs bu tànnee ñu baaxul it moom moo koy moom moo koy yëgaa ah, du du ministre bi mooy am problème de moom si moom mooy am problème donc moom moo am prérogative bi te jàpp nañu Sénégal de manière générale on a des compétences Sénégal bu dee compétence boo wëree àdduna rek nga gën a xam am nañ ay donc a priori pour am 30 personnes yoo war def te temps bi mu jël sax xëy na doon wëri ay compétence donc ñoom jàpp nañ ne ay compétence la moo tax du ma dugg ci nit ñi jàpp nañ ni a priori am nañ compétence yoon a priori ku nekk fi la jox ensuite bu nekkee da ngay jël sax benn ministère compétence bi ce n'est pas lié forcément ma nekk éducation wala ma nekk élevage mais un ministre si suñu xam suñu suñu yaakaar du loolu du loolu lañ koy xaar li koy xaar mooy mu animer secteur bi ça veut dire que secteur élevage boo demee am na ci ay acteurs yu doy yu am xam-xam am na fa ay gëstu yu doy li ci des mooy nga am ministre boo xam dafay Humble. dafay oyof dafay jokkalante ak ñu nekk ci élevage wala agriculture wala éducation dafay dafay accessible ba ñoom bu ñu amee ay gëstu am ay xalaat ay réflexion jox ko ko dafay respect dafay valoriser acteurs yooyu dafay coordonner action yi nga xam ne moom def donc boo amee un animateur quelqu'un boo xam mën na animer secteur bi quel que soit le secteur war na ci mën dem donc li nga xam ne moom la ñu pour man li ñu war a ce n'est pas technicité parce que techniquement mën nga am ay techniciens yu nekk si biir ministère muy éducation muy élevage fu les techniciens existent mhm. ñooñu c'est des techniciens sooy def communication da nga dem jëli ji ñii c'est des techniciens mais man en tant que ministre xaaruñu ma forcément ci ma nekk technicien de la communication ou de l'éducation mhm. mais dañ may xaar ci ma am capacité d'animer le secteur nan lay mën a fexe ba ñi nekk ci secteur bi yëpp muy COSYDEP nga fexe ba COSYDEP yaakaar ni moom kese moo mën a doxal éducation mais en même temps que parents yi jàpp ni ñoom kese ñoom ñoo ko mën a su dul ñoom éducation dox en même temps que les enseignants se disent ñun ndekete ñun ñoo yore clé éducation donc saut valoriser acteur yi qu'on ku le maximum de lui toi tu animes le rôle de ministre pour mouille le rôle bi gën tu yomb ci ko comprendre nga am ubbeeku bët di déglu di waxtaan ak askan bi di coordonner di consolider. Euh, di orienter pour ñun loolu moy li lay xaar de sorte que ku am capacité de leadership et de management vous mën nga wara mëna nek ci plusieurs secteurs différents maintenant par contre li nga xamni gis nañ ko ci ci ci ci gouvernement bi mooy ay points yu bien parce que tam bu baaxee da nga koy wax benn ci points yu bien yi mooy président en commençant par daf ne man fal nañ ma dootuma nekkati euh, dans les instances du parti yàgg dañ ko laaj ñu différencier état bi ak parti bi wax na ko jëf na mais neewoon na man de su ma fi nekkee du ma nangu nit ñi di cumuler ay fonctions bi mu ñëwee neen leen un mois lan may ku amoon beneen fonction nga bàyyi ko kon kooku moo ngi jëmmal li mu waxoon boobu tam point positif dafa point boobu li tax mu ñuy neex mooy ñun dañoo gëm ni éducation ku ci nekk warloo am jot def leneen éducation boo ci nekkee warloo mën a am jot te sûr que boo fi invité woon beneen beneen beneen acteur beneen secteur loolu lay wax mm-hmm. donc lu ñuy fexe ba am émission yoo xam dañuy nekk profondément dans le secteur am jotu secteur bi di geustu pour secteur bi di waxtan ak acteur secteur bi euh ba nga xamni sen seen ak seen i xalaat comme ñun ñu tëdd ba digg guddi di bind benn idée ñëw ñu bind ko dañuy tugg bu ñuy nekkee ci bu ñu sangu sax day jekk ne am benn ida ñu le xaar ñu arrêté xëy na sa bi dañagul dem bind ko balaa mu ñu rëcc parce que ce quotidien ce ba ba moom mooy éducation donc nu ñu def ba am ko le fait que mënu leen do leen cumuler xeyna na mën nañ ci espérer loolu nga jur donc yooyu c'est des points positifs beneen point positif bi muy wax ses priorités li des tuddee première priorité moo ko jeunesse éducation formation entrepreneuriat donc jàpp na ni capital humain ndekete moom moyen base réalisation projet pour mu réaliser projet il faut monter donc kooku su nekkee ci li mu wax jëmal na ko mooy dana gën a jox fulla njàng mi capital humain bi parce que moom la jël comme première priorité donc ci fànn yooyu pour ñun c'est des éléments yo xam ni nit da ciy am yakar maintenant am na point bo xam nag ñun duñ ci d'accord biñ ci d'accord mooy ni mou wat euh, éducation parce que l'éducation éducation euh, d'un koy tàmm di wax néna parce que ñu dellu père euh, le président Ousmane Sonko wan na ni lutax mu am nombre gouvernement mu ko parce que dafa dajalé ay dafa dajalé ay ay ay c'est bien ça mais ça il l'a pas fait ci éducation mhm. éducation on a toujours éducation ministère de la formation professionnelle ministère de l'enseignement supérieur ministère de l'éducation nationale donc décloisonnement bobu même am saucissonnement boobu am daggate bobu muy am ci éducation du tax nga intervention cohérente donc boo bëggee am cohérence bi enseignement euh, lycée def bagam euh, euh, diplôme diplôme supérieur prof d'université nest pas président de jury mhm. donc école bi da koy voilà bagam éducation nationale koy jox école bi fi bagam jox ko jàngalekat yi koy surveiller moo koy euh, surveiller mais euh, ki nga xam ni moom moo am responsabilité bac bi dafa nekk office du bac qui dépend de l'enseignement supérieur donc comment créer cette cohérence entre les trois secteurs pour ñun waxoon nañ ko ba surtout que ñun jàppoon nañ ni jot na Sénégal am benn ministère de l'éducation hum. benn ministère de l'éducation pour des résultats homogènes. pour comme ça mu am plus de cohérence am plus d'efficacité parce que boo ko tasee hum. mooy da nga tas aussi euh, li ñu tuddee fonctionnement mhm. parce que ministère bu ne le soxla bâtiment soxla et sur soxla matériel extra mais ensuite da nga un problème de cohérence d'ensemble pour que nous une lecture dans ensemble moo nous ñun mosu nous nangu ñu tas saucissonné te yàgg nañu ko wax ci nguur yi fi jàlloon yëpp espéré ni à défaut d'avoir un seul ministère un seul grand ministère de l'éducation nous ñu am au moins deux avons le ministère de l'éducation de la formation et beneen de la euh, de l'enseignement supérieur dem au Japon ah oui permettez-moi toujours de voyager benchmarking ben dem au Japon man ak professeur Boubou Diop su may su may aussi maa ngi koy nuyu Nagoya ñu toog parce que ñun su su la ñu dàq fi ñu dàq mooy dañu toog ñun ci tri ci ci comment on appelle ci kaw comment vous appelez ça tribune yi ñoom chef d'état yi ñooy waxtaan seen biir ñun ñoo ngi foon ñun je crois que le Sénégal était représenté par Serigne Mbaye Thiam euh, ñu mettre de cérémonie bi jël parole ne nous voulons donner la parole au ministre de l'éducation de la formation de l'enseignement de la culture et des sports man ak Boubou Diop ñu xoolante pendant deux trois minutes kenn waxul mais wóor na ma ne ku nekk yaa bokk li ngay xalaat. Japon moo la ëpp nit moo la gën a rëy physiquement. Uh-huh. moo la ëpp xaalis. te moom comprendre na ni dafa war di travailler à ce que mu am une cohérence d'ensemble ñun ñi nga xam ne ñoo tudd Sénégal ñu jël le ministère de l'éducation de ce donc côté boobu ñun jàpp nañ ni mooy li nga xam ni amoon nañ ci beneen yaakaar bu ñuy wax te yàlla kese tax maintenant puisque li am am na on va voir ñoom xëy na am na fu ñu ko teg évidemment on va voir lan lay joxe mais en attendant muy joxe lenn bu ñu doon yóbbante il faut ñu am benn dispositif euh, de coordination entre ces trois ministres là benn bu ñu doon yóbbante li ñu yóbbante mooy solutionnement boobu faut pas ñu dund ko bu ñu waree fal bu ñu waree en place direction yi et autres ak agence yi boo jëlee petite enfance sànq maa ne la mooy de 1 pour cent la am pourtant amoon direction de la petite enfance am euh, direction xaw ma lan du préscolaire am agence de la case des tout petits ci ku am moins de 1 pour cent donc solutionnement bi ñu gis ci kaw mooy trois ministères te ñu d'accord ci faut pas que ñu dund ko bu ñu waree liguer ci structure directe, sous le suuf de ensuite il faut une meilleure coordination par rapport à ça pour nous am plus de cohérence d'efficacité et d'efficience donc loolu a gis nañ ko ci li nga gouvernement bi ensuite il point bi nga xam aussi rien fa lay ci gouvernement euh, euh, la vision holistique ou l'approche holistique ça veut dire que l'on aussi il nañ ni mooy parce que nous, en termes de principe bonne gouvernance la ñu mettre en avant n'est-ce pas wax nañu sax place digitalisation bi nga xam ne nañu ko mettre en avant mm-hmm. donc bu fekkee da ngay jël bonne gouvernance nga teg ko en avant si on l'applique à l'éducation donc bu nekkee système éducatif am na bonne gouvernance bi ñu am donc bénéfice lay doon pour le système bu waxee dafay def digitalisation boo ko appliqué éducation xëy na mën naa tax ñu régler problème mu pièce d'état civil yi nga xam ne yàgg na si ñun te mënul régler wu boobu ba léegi problème pièce d'état civil xale yi xale yoo xam ne ñu judd te amuñu donc digitalisation bi ñu wax principe yi mu décliner yëpp au plan global

li leen xamee woon mooy euh, am fait preuve d'humilité li leen xamee woon mooy valoriser ku ne li leen xamee woon mooy ñu fexe ba nga xam ni euh, dañuy accepter les différences parce que cause de des parents du génn ci li mu war a nekk. kooku moom kenn ku mën tax ñu ci. on va faire toujours comme acteur de la société civile veiller à l'être proposition on le fera et donc il faut que autorité bi comprendre rek noonu xam ne syndicat bi dana nekk ci rôlam société civile dana nekk ci rôlam moom mu nekk ci rôlam te ku nekk bu defee sa rôle loolu nag mooy am njeexital bu baax ci gouvernement bi ak ci président Diomaye léegi damay jox monsieur Diarra ak monsieur Ndiaye léegi euh, monsieur Mbow da ngay jël question yi bu ko defee après ñu ñu def benn tontu global alors vas-y monsieur waaw maa ngi nuyu ñi ci plateau bi yëpp particulièrement sunu suñu gan DE di ko dalal si suñu plateau euh, salon d'honneur fii à Thiès euh, man damay intervenir ci ci ñaari aspect bi ci jëkk mooy par rapport à cette cohésion euh, d'ensemble bon les types d'éducation euh, war nañu faire une certaine articulation mmh. pour que euh, le type d'homme là, soit soxla parce que vraiment hein, cette articulation par rapport à l'éducation formelle l'éducation non formelle et l'éducation informelle aussi également c'est mmh. important mmh. parce que on a tendance à seulement parler de l'éducation formelle, de l'éducation non formelle, mais informelle, il y a aussi problème. Et pourquoi j'insiste là-dessus Moi, euh, surtout, de la formation des enseignants. La formation enseignants, une école de formation, mais c'est d'abord. Parce que tout ce qu'on a dafay am une disposition d'abord avant mu ñëw ci ak former. et là c'est un. Hmm? mais enseignant bi société bi. voilà justement et là vraiment c'est un problème c'est à l'école de formation ca li ñuy former enseignant bi ñu am mais c'est depuis euh, la formation initiale familiale d'abord en passant par voilà donc ce qui fait que ni vraiment c'est des problèmes donc bon c'est là où je voudrais intervenir pour dire que bon gis vraiment clairvoyance bi vraiment que bon c'est le débat est vraiment intéressant et merci vraiment merci, euh,

bok mi nga xam ne dafay jóge mhm. yalla na ko yàlla yërëm ak bon di ndokkel nak wa kër gi di ko tabulé ci kilifa gi mhm. ak sen ay fidèles téléspectateurs vraiment bon légui légui li bëggona bëggoon a laaj leer par rapport ak COSDEP parce que effectivement comme ni nga waxee COSDEP dafa am ay antennes régionales au niveau des régions vu sëñ Fallou wax na ko sànq donc COSDEP dañ ko wara a dox ko gëddaam ndax taxawaay bi xam ah, am na ko parce que day proposer day alerter mais également ak yeneen yo xam da koy tek ci xam-xam bu wóor comme ni ko sëñ Cheikh ñu tam donc man fofu dama doon bëgg rek ñu gën a appuyer les antennes régionales pour en tout cas liggéey bi nga xam ne ko ko mi koy liggéey mu gën a dem ci aso parce que am na njariñ quoi c'est important mm-hmm. bon beneen élément bi mooy euh, par rapport à la formation professionnelle bon je crois bien que ak xam-xam bi nga xam ne ko ko am na ko euh, lan la bëgg bon lan lay digal su fekkee mën naa ko wax noonu wala bu beeg lan lay proposé en tout cas su bon gouvernement bu bees bi euh, ci war taxaw taxaw ci euh, enseignement professionnel parce que nag l' avenir quand même bon du du du Sénégal soo xoolee ah en tout cas euh, bon enseignement professionnel am na solo parce que li gën a am solo ci ci ci ci askan mooy xale yi mais il ñu tàggat leen bu ko defee ñu mën a am ay métier yoo xam ni mën na yëngu ci affaire emploi et employabilité en tout cas voilà des jeunes loolu daal moo doon kàddu di feñal sama mbégte en tout cas en tout cas ci ci ci ci ci ndaje bi xam daal en tout cas liñ ci dégg daal am solo merci beaucoup waaw mais je crois que question yi aussi am solo ñu ngi leen di sant bu baax di di di xam ni yéen ñëpp mën ngeen toog fii wax borom bi xam na ko mën ngeen toog fii loolu mooy waral ni Sénégal euh, nit mënta nangu euh, que mu am ay ay jafe-jafe ci secteurs yi parce que bu ñu seet xam-xam bi wax dëgg yàlla am na fi ñun yàlla def nañu représenter euh, comme on appelle euh, la suite civile du sud mooy Afrique Asie Amérique latine dans le conseil d'administration du partenariat mondial pour l'éducation du lu ndaw sénégalais moo fa nekk euh, yàlla def na ñu wooñu pour ñu bindal leen politique éducation en situation d'urgence Mali bi fa amee seen jafe-jafe ñu am sur le plan guerre loolu aussi suñu jëm ji sénégalais def nañ ko pour dire que sénégalais bu ñuy wax rek ta tax te yàlla kese tax xam-xam bi ak euh, compétence yi ñoo ngi fi kon nak lu tax doxul war nañ ko mëna war nañ ko mëna a gëstu te xëy na lenn ci li ñu wara def pour mu dox moy ñu gëna am euh, jappalante solidarité. Ah. très souvent euh, bu nekké nit ki sax mo ngi góorgóorlu di jéem a jëmmal boo deful ndànk gaay dañuy dam tank ya ah, dañ nan waaye ki kat mo ngi dem non non il est trop finalement c'est ki ki ki jëm moy problème ki ciuné mom moy ki ñu bëgg. Hmm. donc euh, dans dans toutes les structures. Mm. Euh, essayer les gens font de toi un truc donc y il un état d'esprit là. alors que pour les deux qui nga ne avancé dañuy les entrepreneurs de changement. Il faut que les entrepreneurs de changement fassent dañ koy fonk du code. foulal, du du coup, Mais coup, jox n'est mais ce c'est pas le cas donc état d'esprit je crois que war na change. maintenant tu dis antenne régionale est tout à fait d'accord il faut que nous leen euh, bien que dëgër nañ ah en terme régional wax dëgg yàlla jàmbaar lañ peut-être ñoom aussi ñu gën a wàcc ci biir euh, département yi loolu xëy na suñu mbokk coordonnateurs yi mbeng ak ay morom ñoom ngay waxal euh, mais ensuite am aussi seen autonomie financière loolu moo leen manqué mhm. parce que lu ëpp ci li ñuy dawal mooy li nga xam ne ñun lijjanti nañ ko ba am luñ ci leen ci dénk donc dina baax aussi ñoom seen autonomie financière mais seen dynamisme ak seen seen seen contribution ci li ñuy liggéey loolu kenn werantewu ko bu ñuy wax tey crédibilité COSYDEP c' est parce que dañuy am ay données yu jóge si terrain bi bu ñu am ay données yu jóge si terrain bi yéen yéen a koy indi kon foofu danañ ci sant di leen ci amagoo leen ay subvention euh, pour euh, niveau COSYDEP COSYDEP waaw waaw xam nga COSYDEP du am ñun ba léegi jëluñu subvention état c' est clair bu dee subvention état ngay wax subvention état ñun jëluñu ko amuñu ko jëluñu ko ko aussi parce que dafa defon objet wu sax débat wu suñu dañu assemblée générale. Mm-hmm. est-ce que war demande demander état subvention ou pas. Mm-hmm. certains pensent que oui parce que ONG lañ donc dañu am euh, tu vois posture euh, de contribution publique euh, comme d'autres ONG en bénéficient mais ñeneen aussi yaakaar ni xëy na mën na am nu mu la affecté suñu autonomie. Mm-hmm. donc pour le moment débat bobu réglé guñ ko. mais pour le moment ñun amuñu benn subvention ba nga xam ne jóge état am c'est les cotisations des membres moo koy jox leneen li ñuy am moom mooy l' approche programme mooy des projets yi nga xam ne moom la ñuy déroulé euh, bu ko defee ñu remplir suñu formulaire euh, xeex ko bind ko ba mu normal ñu am ci ay partenaires des bailleurs de fonds qui viennent nous appuyer donc loolu mooy li nga xam ne ci def li ci des mooy bëri na lu ñu def loo xam ne aussi ñaar dërëm teguwu ci amuñu ci benn partenaire boo jëlee ubbi tey jàng tey bi nga xam ne ñu bëri dañ koy saluer initiative la boo xam ne 150 000 francs lañ ko liggéeyee mais li tax ñu mën ko réussir ba mu am tey aura bi mu am ba chaque début d'année ku nekk di surveiller ndax nekk naak nekkul lan moo ma manqué suma école dafa manqué li tax moom aura boobu c'est parce que y avait une bonne complicité entre les acteurs le ministre euh, ta euh, Serigne Mbaye Thiam jamono jooju bi ñu ko waxee def na gongo ça c'est la meilleure proposition il l'a soutenu euh, les la presse dañ na gongo ça on va faire beaucoup de documentaires beaucoup de trucs sur ça on l'a soutenu loolu laa doon wax sànq ni bu ñu amee des porteurs d'initiative des entrepreneurs de changement dañ ko war a te waruñu xool ndax COSYDEP la tudd wala mu mu ñuq la tudd waruñu ci xool yooyu yëpp donc loolu mooy benn aspect bi nga xam ni mënoon nañu ko ci wax bi si mooy wax nga sànq euh, ci formation des formation des enseignants je suis d'accord avec toi que jàngalekat bi euh, du kese ci école de formation lañ koy former foofu danañ ko fa former mais war na am aussi un dispositif de formation continue parce que àdduna dafay avancé tey xool numérique bi ni mu ñëwee bu njëkk xam-xam bi kan moo ko moomoon ah jàngalekat moo koy téye moo koy poñe uh-huh. xale lu mu war a xam si jàngalekat lay jógee tey booy def secours eh, xale bi so def nak mu xam ci loo xam donc eh, war nañoo changer approche de sorte loolu na li koy waral mooy nga am formation continue mais formation continue mooy nga am inspecteur yu doy yoo xam dañuy dem ci ci ci enseignants yi pas seulement pour def ay CAP avec ay examen wala pour kii mais pour les accompagner les soutenir tey boo amee un inspecteur pour plus de 250 enseignants ça veut dire que am na enseignants yoo xam danañ jàngale ba retraite duñu mën a mos a bénéficier wu ci accompagnement wu inspecteur donc loolu da koy régler tu disais euh, ni mu jukko yi mu am aussi ci kër ga mën na feeñ ci biir euh, euh, dafa war a nekk loo xam ne aussi danañ ci mën a am yaakaar mais foofu aussi ñuy fàttali ni loolu mooy waral ñuy xeex ñun lu tuddee lépp lu jëm ci recrutement basé sur le clientélisme mooy jël nit rek directement dóor ko parce que filtre yi préalable yi nga xam ne moom la ñuy yaakaaree ni waa ji am na ko ba war a mën a def formation enseignant mooy mooy concours parce que ci concours danañ ko ci natt ci ndax am na diplôme yi mu war mhm. danañ ko ci natt ndax am na mën-mën de base bi pas lépp ndax am na minimum boo xam ne war ko ignorer bu mu xam su ñu koy nattee ci concours mais ci concours dana def aussi entretien oral ñu xam ndax am na benn minimum de jikko boo xam nañ ci def mag bu nay recruter ay nit moo tax ñu mësu a compte quota sécuritaire ak recrutement bu ko nduru ñu contre li nga xam ne moom le ministre sortant bi defa ah. jël ay enseignants rek euh, affecté leen dans les trucs jël ay nit affecté leen def leen enseignant ay OS bu mu génnee dernière minute yooyu mënuñ ci d'accord donc jàpp nañ ni concours enseignement dafa war nekk concours boo xam dafay lalu ci ay prérequis et préalable partagé mooy waral nga mën ko natt apprécier ko avant muy dugg ci l'école nga jàpp ni kii balaa muy dugg le minimum li mu war a am ci diplôme am na ko le minimum muy connaissance yi mu war a xam-xam na ko le minimum en comportement am na ko lépp na du mat parce que bu lépp doon mat duñu soxla def école de formation maintenant ci biir école de formation nga jox ko temps doy pour ñu nafar ko ci bu génnee ci formation bi nga xam ne éducation dafay évoluer adduna dafay bouger nga pour suivre ko renforcer ko ensuite nag moom aussi mu am volonté mooy sànq la ñu doon tuddee motivation sëñ dafa mu am volonté moom it jël même ci salaire ak ci gëstoom di ci di bind di liir di gëstu te loolu jàngalekat bu ko def day tardé rek te boo tardé say xale dañ lay dañ lay dañ lay xeeb. Mmh. dernière question bi nga posé mooy formation professionnelle ak qualification pour jun am na affaire mbir la bu am jàpp nañ ni suñu réew yi euh, voilà dafa am solo ñu gën a fulal formation professionnelle mais formation professionnelle waruñu ko yóbbu ci orientation wu. ñi échoué école la ñuy yóbbu formation professionnelle déedéet. Mm-hmm. am na xale yoo xam dañu am talent wu manuel dañu am talent. Mm-hmm. tey man suma bureau ba fële am naa fa ay boy yoo xam ni je te jure boo leen dee seetlu ba xool leen rek euh, ils sont hyper puissants mm-hmm. mais mais boo leen dugalee ci connaissance euh, générale duñ ci sori duñ ci sori donc c'est sûr que ñun ñëpp xam nañ ko suñuy koñ ak suñuy kër ak suñu dëkkal xanaa xam boo ko seetloo da nga xam ni kii bu yàlla defoon mu am benn minimum bu daa defoon menuisier beneen façon moy parce que déjà limi muy rek gis nga donc talent yoy dañ ko identifier en tant que war nañu jàpp formation professionnelle war nañu ko joxal gëdd parce que boo demee structure boo mënta jël bu né so amé un bo amé un ingénieur ñaata technicien ngay am technicien ñoy ëpp ingénieur n'est-ce pas structure boo mënta jël bo soxla do ko xam dafa am doctorat boo soxlaa kenn ko am doctorat dang ci soxla euh, je ne sais pas quoi peut-être 30 ou 40 yu am bac demal ci école yi fépp milieu bo mën ci dem entreprise bo mën ci dem organisation bo mën dem ñi nga xam ne cadres yi ñoo gën a ñu dul cadre masse bi donc ça veut dire que yow am nga intérêt créer ay qualification ci masse bi ba mu ëpp le président Macky Sall disait 30 pour cent yi mu orienté ci formation professionnelle mat la wuñ ko ñu ko mais 30 pour cent sa xeeb nañ ko parce que dans nos structures tu n'as pas 30 de de de de subalterne ñi nga am ci cadre ñoom gën a néew dem muy fii seen presse bi cadre yi toujours dafay un nombre limité maintenant ñeneen ñi nga xam les techniciens ak euh, euh, extra les reporters yi dem ci terrain bi ñoom ñooy gën bëri n'est-ce pas donc lool boko appliquer aussi ci éducation de manière générale da ngay japp ni li nga wara soxla ci ay ay homme de métier homme ou femme de métier moy qualification parce que dafa war a ëpp loolu li ngay soxla ci ay ingénieur ak ay cadre moy ñi jóge université avec tel tel donc war nañ ko gëna fulal je suis tout à fait d'accord te am nañ moyen pour def ko <laughs> damay damay day wax léegi sama xel dem si ndeysaan junior sama doomu mag <laughs> bi mu nekkee xale am 5 ans 6 ans

loolu aussi dafay baax ñun aussi ñuy am observation ci yenn xale yi parce que bokk na ci lu ñu tàddeel ci lu bari. gis nga tubaab bi day xool doomam bu bëggee ay affaire photo ak yooyu sax moo xam ni kii am na tey fu ko ay fu am fu mu amee talent. donc tel ko dugal ci loolu maanaam du ñu xeeb ni lii métier lu xam Sénégal moom boo ne sama doom day def mécanicien ñu ne. kii na narul tekki mhm. voilà té alors que euh dinañ jël métier yoy noonu non. koy valoriser ba nga xamante ne xale bi dina ci mëna gis bopam légui ma ñëw ci sama question dugg directement ci li nga xamné moy programme régime en place bi dafa am benn jour may def émission ak un jeune aujourd'hui qui a 28 ans mu ngi dëkk Medina Yoro Fula moom mu ne fi mu jàngee école primaire ba ba sem ba ni mu amee BFEM il faisait 8 kilomètres pour jàngi wàññi ñibbiwaat et aujourd'hui aussi ses petits frères et sœurs même trajet boobu la ñuy def pour jaay ngi wàññeeku nee na moom sa ça, sax doomam loolu la dara def à défaut da koy <laughs> défayisé jëlee ko foofu indi ko fii Thiès wala Dakar aujourd'hui il est à l'université Ibadertiam et 18 ans wala 20 ans après bi mu jàngee ba légui ci même condition yoy le village am nek ay rakam ak ñeneen fa non lañuy jangé bien vrai que état bi régime bi fi nekkoon defna ay lu bari ci walum enseignement surtout nak ci côté euh, dans les villes dans les euh, espaces ruraux mais desna ba légui tay euh, ci sama programme euh, ci programme président Bassirou Diomaye Faye bu ma koy xol dama dégg dama gis intégration effective euh, des langues nationales euh, dougal ci li nga xamante ni et des daara pour euh, donc mu mu effectif euh, pour un système éducatif dans le système éducatif mu nek lo man je pense que c'est bien parce que langue nationale yi baax aussi bokk na ci liñu tardel dila di la làkk loo ni peut-être bi nga amé zéro ba cinq ans même langue lañ lay wax moy wolof moy pulaar moy séeréer nga dem ba école ñu bëgg la formaté né la li nga jàngoon de 0 à 5 ans dañ lay jàngalaat benen langue souvent mëna créer benn retard mais aussi buñ xolé Sénégal ni bindo ethnicité bi daf fi bari tay bo xolé euh, Kolda boo demee foofu da nga nan pulaar nga dem Ziguinchor nga né Joola donc tay buñ ñu defoon euh, bu ñu intégré langue nationale yoyu ci biir système éducatif nan la procéder réellement ki dégg joolaa danga naan ko force dama lay jàngal wolof. Hmm. wala danga koy bàyyi mu continuer jàng ci joolaawam bi nga xamante moom la nàmp. wala ki dégg pulaar noonu nga ko def wala dangay dem euh, Kolda nga dugal fa pulaar dem Ziguinchor dugal fa joolaa ñëw Thiès ak Dakar dugal fi wolof et cetera donc yéen ko si def bi nga xamante ni nii seen euh, xel màcc na ci di jàng li nga xam ne wala boog di étudier. li nga xam ne moom mooy euh, voilà. nan ngeen ko xalaatee yeen bu ñu bay def lool nan lay def. nan nan lay bah, demee bah, d'accord je crois que c'est c'est intéressant euh, ñett poñ yi ma dégg yépp soxna si. benn bi d'abord le système d' orientation. Mhm. donc je crois que am na solo que ñu repenser ko au Sénégal. bëri na xale boo xam ne échoué na parce que fi ñu ko orienté du foofu. Mhm. am na xale boo xam ne euh, réussirul baggam L parce que xëy na war woon def bac L leneen la war a def. Mhm. benn série donc soo ko appliqué à tout point de vue le système d' orientation mais système d' orientation pour rek nga rek la ko li ñu waxoon si inspecteur dañu manqué ba enseignant duñ la am ñu leen di suivre nonu aussi la nga amee euh, un besoin en psychologue conseil mm-hmm. am na xale boo xam dara dana ba ni muy bàyyi du dajeeg psychologue conseil bo xam mom lolu loolu mooy la match mm-hmm. bu la xolé waxtan ak yow am ak yow ay séance dana xam fan nga gëna matché tay yow ratio bi ñu am dafa dafa dafa dafa doy waar sa tu as un psychologue conseil pour 900 élèves

mu am plus de 2 millions d' enfants yoo xam ne mënuñu lire mënuñu bind mënuñu fenn jànguñu école jànguñu daara nekkuñu ci atelier kooku injustice la te ñun ñëpp on est interpellé. je vous je dit en début d'émission que ñun ñëpp ñoñu dañoo cotiser pour ñu jàng. donc ku ci tok sétane ko waxoo ci ku ne la nga mën rek nga ci def ku mel ko ci def mënuñu def lu dul bind ci wax ci yuuxu ko. keneen moom moo koy moom moo koy jëmal donc ci biir goulot d'étranglement yi am na ñoo xam ne bàyyi nañ ndax problème pièce d' état civil. Mmh amna ko xam bayina na parce que xaalis bi ñuy lacc école bi atunuko da fay obligé arbitrer ne suma dom bi na jang kii na tok mhm. parce que li ñuy lacc inscription inscription euh, coût support yi coût matériel bi coût attanatu ko mhm. loolu tamit goulot d'étranglement la amna ko xamni euh, bayina na pour des questions d'ordre culturel si li ñu jappé jigen ñi soxna yi na dem teel marié wu mais amna ko xamni aussi bayina na pour des questions euh, d'ordre géographique moy li nga tuddé distance mhm. ba nga xam ne loolu waral élargir le réseau scolaire dafa jot diko yok mais ni ñuy déggee gouvernement yi di waxee jamono yi yu ñu weesu yëpp mooy day mel ni li ñu def ci éducation doy na mënatuñu def lu ko ëpp kooku donc narul nekk ci ambition yu yokk ko. alors qu'il y a énormément d'abris provisoires. <laughs> waaw voilà te xam nga abri provisoire <laughs> même euh, même président Diomaye ñoo ngi gis ci biir proposition mu ne d'ici 2029 lépp day daj jàpp nañ ne loolu loolu war na ko xoolaat parce que abri provisoire nekkul loo xam ni euh, bu ñu deful ndànk ni ni gouvernement yi ak même askan bi ni ñuy waxee ci abri provisoire ñëpp dañ naan dañ fi jëlee abri provisoire ah, abri provisoire baaxul loolu la ñuy dégg ba nga xam ni dafay influencer politique yi ah. danañ fi jëlee abri provisoire en 2029 ñoom ñëpp la ñuy wax or bu fekkee da nga jël yow sa sa sa perspective yëpp nga nekk ko ci remplacer abri provisoire mooy boo deful nag am na école yoo xam doo abri provisoire doo def extension mais c'est des écoles dinaa fa ñëw mais des écoles boo demee saint bi école yoo xam ni ndox bi jël na leen école boo xam ni xorom si jël na ko à Fatick donc ay écoles yu ñu war a ré euh, Limamoulaye bi yu ñu war a réhabiliter hmm en plus de abri provisoire am war nga am dispositif pour réhabiliter l'école mais en plus de ça war nga yokk ce réseau scolaire parce que bonnet qui ci remplacement abri provisoire moy li fi nekkoon carte scolaire bi fi nekkoon rek ngay remplacer jëlee fi barak remplacer le par mhm. par contre le combat sur l'abri provisoire nous que nous avons développé moy abri bu ñu tuddee provisoire de nekk provisoire c'est-à-dire ben abri warul sous deux ans mhm. deux ans moy deux années budgétaires deux années budgétaires tu le remplaces donc même nga di code ça di provisoire mais ben du dund lu ëpp deux ans mais chaque fois actuellement président tout ce qui est abri vous durer plus de deux ans l'homme est que son combat pour remplacer il ensuite a une instruction ferme pour que le village du Mag, ba soxna am ben ñax bu commencé am ko warul remplacer remplacement. Non, euh, puisque da nga un dëkk bo xamni démographiquement euh, ay jeunes lañ. Uh-huh. xale yi ñoo ngi ki ñoo ngi màgg. Uh-huh. bu ñuy tabax la da nga continuer di am abri provisoire mais fay répondre ci norme provisoire. du nek ay durable. Uh-huh. donc sur la question de du réseau scolaire nous loolu lañ gëm. j'en profite comme pour wax ni la question des abris provisoires ak la question de la réhabilitation de la carte scolaire ak l'extension réseau scolaire dañ ko adresse. dernière question bi nga wax moom mooy euh, les langues nationales d'arrêt extra pour ñun dafa nekk lu am solo. maintenant nan lañ koy defee sànq neng nga Sénégal dafa bëri ay noo ko waxee ay ethnie ah. ethnie waaw mais su ñuy demati ànd dañ lay yóbbu plus de cent langue mais taxul ñoom ñoo ngi jàngee partie langue nationale mm-hmm. yow amoo ça mm-hmm. donc bëriwul non bu ñu def loolu si bopp nit ñi c'est pas vrai bëri na wuñu boo demee deneen dëkk boo demee si asi bi ay centaine de langue ngay am ko du bëriwul te ñooñu ñoo ngi arrivé di jàngale par langue nationale d'accord bu nekkee am nañ jafe nañ dem gëstu ji foofu mm-hmm. inspiré wu ci pas pour dire tricher mais inspiré ci. <laughs> léegi ñoom solution ñoom ni ñuy def boo demee ñun dem nañ ànd gis fa jàngalekat boo xam ne mënul làkk anglais mënul làkk dara ci élémentaire bi làkk gox bi la bët tey boo demee nga ne da ngay def noonu tu mets en avant la langue locale xam nga xale yi xale boo demee tey ñu affecté la yow fonctionnaire ñu affecté la fële ci Fuuta xam nga ne say doom pulaar la ñuy làkk parce que dañuy génn di foog mm-hmm. ko làkk dëkk bi ci même dëkk bi boo demee Casamance amna ben benn xëy village bo xam fofu langue bi ngay duggee moy langue bi nga xam mo moo ëpp te ñëpp di fa làkk moy soose benen dëkk bo xam ci même même Casamance bi fi joolaa ngay duggee ah, fi mande ngay duggee li ngay duggee donc il faudrait que ñu japp ni xale bu juddoo warloo ñëw rek jël ben extraterrestre teg ci kanamam mooy jël ben monsieur Mbeng xale bi am 5 6 ans dugg ci classe monsieur Mbeng nan ko dëbu xale bi bañ jog jóg monsieur Mbeng bëgg koo mbañ boo ko doon jógal muy jóg <laughs> boo du jog jamais donc nu ñuy fexe ba limu namp mu am transition di ci yéeg li ma waxoon suñuy yenn mbokk yu nek ambassade France ñu invité won ci waxtanu langue nationale man leen même pour ñu maîtriser suñu làkk sen làkk bi ngeen wax moy français bi nga jàngee ko par sa làkk bi nga namp moy gëna yomb hein ensuite langue yi euh, ay ay ay outils la rek boo deful ndànk bu nekkee da ngay mettre en avant euh, langue française bi ci biir enseignement surtout alimentaire ngay jàngal xale bi oranger orange la

Euh, muy làkk bu mënti doon français anglais bu doon instrument dafa war a nekk rek fi ngay jaar pour dem acquérir du savoir. Mhm. am ay compétences donc jàpp nañ ni loolu ñun ñoo ko mujjee wax. man ak yow ñoo ko mujjee wax. gëstukat yëpp wax nañ ko bindkat yëpp bind nañ ko xam-xam yëpp wane nañ ni amul làkk amul école boo xam ne mën na progresser te duggee woo commencement bi mooy xale bi doog a dugg duggee woo ko ci làkk làkku làkku askan bi loolu ñëpp xam nañ ko maintenant li des mooy ñu am volonté politique pour jëmmal ko. volonté politique bi la dafay laaj euh, xaalis boo ciy def mooy am nga loo ci gëmee loolu bu nekkee tant defuñu ko évidemment que dañuy nekk toujours sur dispositif boobu mais puisque am nañ gouvernement bees boo xam ne espoir lalu na ci te ñëpp a ngi yóbbante ñun la ñuy yóbbante aussi mooy euh, làkk yi nag bu mu nekk tey coow na nekk loo xam ni Euh, bu nekkee gëstu ah, parce que gëstu def donc nañ vers sa mise en on peut tendre vers un recrutement d'enseignants poulard d'enseignants non implication manuel implication euh, kat yi peut-être pas recrutement di recruter ay poular ak ay séeréer mais ci biir ni ngay jàngale xëy dana am benn dispositif boo xam ni comme ni ngay jàngalee arabe yi ñoo ngi jàngale arabisant non am nañ ay kat arabisant yu nekk dans les écoles de formation mhm. donc noonu aussi nga nga koy nga koy considérer donc pour ñun euh, loolu dafa am solo bu fekkee da nga bëgg a dugal euh, làkk yi d'abord mooy nga nangu ni amul benn réew bu développé di jàngee ci làkk jàmbur man gisuma ko tey bu ñu toogoon ñuy lister quels sont les pays les plus développés amu ci benn boo di ci dañ ko école nekkul pour résider mais c'est pour am xam savoir donc bu nekkee ni wolof bi wala séeréer bi wala bi laa ko war a pour mu comprendre luy caméra xam lan derrière pourquoi moom sensu caméra ba nga xam ne bu le chien du soxla du soxla le chat parce que xam na phénomène bi tu vois bu maintenant euh, ethnie dañu bëri parce que wan Asie ils arrivent à résoudre cette question donc un bon argument bu m'entendez a maintenant je vais terminer par ça espèce parce que question est si daf ñuy a une demande à ce nouveau gouvernement moi, la refondation du système éducatif il faut engager ça beaucoup engager da langue nationale parce que si def engageons, pas ko engagé dañ par événementiel moi nous ñi la langue nationale on la règle après ñu yuuxu daara ñu demaat ci daara ñu ne waat petite enfance dal donc il faut que ñu réfléchir kon ñoom ni ñu prôné kon ñoom ni ñu prôné changement de système foofu tamit dafa laaj aussi beneen changement de système dafa am dafa war am changé le système éducatif dañ ko war a refondé xool ko ci méthode yi xool ko ci pratique yi xool ko ci continue yi xool ko ci ni ñu jàngale xool ko ci finalité bi tubaab bu njëkk ba tubaab bi ah, dafa amul fulla man dama ko fan parce que tubaab bi mu ñëwee coloniser ñu moom li mu soxla woon mooy ku mën a ku ko mën a konteel ay saaku ceebam. Mhm. mën koo bindal leetaram loolu la soxla woon. il l'a réglé ñun tey soxlawuñu loolu soxla nañ koo xam ni kenn du ko nax ci pétrole bi bu ñëwee. Mhm. soxla nañ koo xam ni war na sur le plan numérique def lu ko benn façon Sénégal lañ soxla. bu nee éducation je l'ai usine la éducation usine la boo xam ni mu war def mooy déglu askan bi capter commande yi lan la sénégalais yi bëgg. Mhm. lan la Sénégal bëgg ñu ne Sénégal bi ñu bëgg en deux mille nii la war a mel nit ñi bii jikko la ñu war a mel. éducation capte commande yooyu tabax nit ñu mën a tabax Sénégal boobu. loolu mooy perspective bi ñu war a nekk. éducation dafa nekk usine buy déglu aliment buy déglu agriculture mu ne dama bëgg am ay agriculteur moderne mu tabaxal ko ko buy déglu buy déglu santé dama bëgg ay ñoo xam ne dañuy raxasu dañuy def nii dañuy def mu tabaxal ko ko du boobu xam day bëgg day déglu pétrole gaz dama bëgg et donc éducation secteur la bu war a nekk usine buy déglu commande wu askan wi. askan bi wax ban Sénégal lañu bëgg fii ak deux mille moom mu tabax nit ñu war a réaliser Sénégal boobu. perspective boobu boo ci nekkul finalité boobu boo ko amul da ngay juum parce que da ngay nekk toujours dans de l' événementiel da ngay nekk naan non non kii dugal école naa ko dugal suma village bi manqué na classe naa ko yokkal classe euh, kële langue nationale naa ko dugal non tu ne seras pas dans une approche globale. réellement on a une école sénégalaise quoi alors.

Euh, lan moo war a tax ñu gën a taxaw ci suñu sunu sunu national nationale euh, bi muy wax naan colonisateur bi dafa am lu mu réglé Pape Ablaye xam na ci dara les anciens enseignants xam nañ ci dara soo demee dans le milieu joola pulaar ou bien séeréer ñi dàq làkk français foofu la ñuy génne mmh. parce que la de communication bu fa doon nekk c'est c'est français le gosse qui est là-bas il est obligé de parler français pour communiquer Donc ça ça allait être plus facile pour ñu ko jàngaloon ci ci langue maternelle. Hmm. les ceux qui parlent mieux français. il faut ñuy jógee soo ko jëlee ci ñi nga xam ñoo nekk ci ville parce que ville bi peut-être les gens se communiquer avec d'autres langues L'ol daf ñuy daf pousser pour que euh, milieu bu nekk fa nga euh, muy ci milieu séeréer bi milieu alpulaar bi milieu jora buñ doon jangal xalé yoy ci sen langue bobu euh, l'enseignement va aller être plus rapide lenen li euh, daf ko wax legui muy la subvention pour considérer. dama ci dellu si xam nga bi may dawal dama ne yeen dañ leen wara a parce que man c'est une conviction que j'ai et su le la nga wax lépp le problème de l'enseignement euh, peut être résolu si les les décideurs vous écoutez parce que yi ngeen indi yëpp ce sont des problèmes et des solutions que vous, vous donnez. Mais malheureusement, euh, les problèmes sont là, les solutions ne sont pas apportées. Euh, chaque année, on a des crises. Mm-hmm. On a des crises dans l'enseignement. wax problème grève enseignants... du doigt li nga man ci régler sax ci la formation des enseignants. Mm-hmm. pour moi c'est c'est fondamental. quand l'enseignant n'est pas bien formé il peut pas ne pas il, n'a pas la vocation et quand on a la vocation am na yu bëri tu peux tu peux passer là-dessus yaa koy on a été on a été formé euh, dans des écoles de formation bo fay dugg mën nga baña am sax euh, vocation li ngay ki c'est ça mais lañ la formé dina tax nga dem ba bëgg ba bëgg enseignement ba yow sa bop so génnee tu seras obligé de faire d'autres recherches pour progresser dans ton enseignement mais maintenant on prend des des enseignants c'est là où je je dis il faut pas que très souvent nous, mais euh, de l'autre côté il faut que quelquefois aussi qu'on se plante le doigt quoi pour dire que nous aussi on a une part de responsabilité dans ça et l'État ne nous a pas aidé dans ça un des pas autant on doit former les les les les élèves on parle de formation mais autant on doit accéder aussi la formation des des formateurs, mm. si je peux le dire comme ça. Mm. Les enseignants doivent être mieux formés maintenant. Le budget bi ñuy génn di ko dugal ci euh, ci enseignement bi nañ ci génn lu toll pour la formation des enseignants et à partir de ce moment on peut augmenter les abris provisoires et consorts augmenter euh, les, écoles et diminuer les effectifs. Parce que si vous voulez diminuer les effectifs, il faut avoir beaucoup d'enseignants formés. C'est ça. Effectivement, le parce qu'on a peu d'enseignants. Mhm. On est obligé de gonfler les effectifs pour que ben enseignant ait 60 ou 100 élèves. Mais si les enseignants sont, bien formés en nombre, les, locaux, les abris provisoires, certainement on aura aussi franchi un pas pour que l'élève ait une bonne formation. Mhm et que les enseignants aussi am une vocation par rapport à ça. su boobaa nag on peut augmenter maintenant li nga wax euh, enseignants aussi li ñu di jox en termes de rémunération il faut que nous nous revoir ko doyul comme ni nga wax doyul mais il faut nous aussi nous ñu dëggal suñu sur le terrain. c'est ça waaw am leneen loo xam ne wax nga ko et ça me donne li tax ma ma ci koy relever non des na <laughs> li tax li tax ma koy relever mooy da nga bi nga Japon ñu wax benn ministère ministre de l'enseignement. Euh, éducation sport culture éducation sport culture barki démb la ñu toog fii ma bi gars yi waxee discours ba pare ma ne dégguma ci ñu tudd ci benn mot sport et l'éducation ne peut pas aller sans le sport actuellement ñu ñu nous ngi wax la formation la formation et on parle d'éducation maintenant y a y a y a l'éducation et sport. Mm. Et l'autre aussi, dans, notre système éducatif, il faut que nous revalorisons. Et j'ai bien aimé, quand dans le programme de, de nous avons revaloriser l'éducation physique à tous les niveaux. Mmh. Ils l'ont dit dans leur programme. C'est une, excellente chose. Mais là aussi, il faut qu'on pense aussi à la formation des, éducateurs sportifs. C'est un domaine invité. <laughs> xam nga le Sénégal a eu un retard sur ça. Mmh. Moi, les enseignants d'éducation physique durant longtemps étaient au niveau du ministère des sports. il a fallu des grèves et des mouvements pour que nous nous rattachions au niveau de l'éducation nationale. Mmh. et quand ils sont rattachés au niveau de l'éducation nationale cela veut dire que quand ce ministère de l'éducation nationale peut englober en même temps le ministère des sports. mais mais mais ah, je crois que il y a des pays éclairage évidemment que euh, d'accord nañ ci euh, li ngay wax naan euh, par rapport ak posture bi ñu am de solution je crois que ñi xam nañ ko man de ñi may liggéeyal fële ko si def léegi bàyyi nañ ko d'ailleurs ku dugg sama bureau doomu wax problème parce que boo waxee benn problème da nga ko accompagner ak dix solutions l'entrée par les solutions nous on veut être type ONG boobu organisation boo xam ni bu jafe-jafe amee dañ ciy anticiper mooy alerter mais ensuite bu ñuy réfléchir dañuy réfléchir sur des solutions pour ñun loolu mooy euh, posture bi ñu am ak perspective bi ñu euh, et ça nous amène à dire li nga wax ni ku nekk am nga ci responsabilité du état central bi kese parce que état ñun ñëpp la et donc euh, bu ñu waree fexe ba suñu réew sotti ñu jëmale ko fi ñu bëgg ku nekk da ngay li nga nekk da nga ci joxe sa maximum collectivité territoriale yi nañ ci wax ñoom am nañ ay responsabilité école yi am problème ndox il amul gardien yi amul femme de ménage war nañ cee gën jouer rôle en termes de place bu ñu ko war a jox jàngalekat bi am na ci responsabilité même bu ñu ko formé wul ni mu waree gëstu bi mu war a def euh, parce que day avance très vite am parent bi am na responsabilité ñaata parent nga am ñoo xam ni mënuñu la wax seen jàngalekatu doom nu mu tudd xamuñu ñaata la ñuy toog par table banc xamuñu ndax école seen doom ndax am na ndox wala amul courant xamuñu dara ci école bi école daal garde la ñu ko def bëri na ñoo xam ne lu mel euh, état santé nag moo jiitu ñëpp ni mu ñëpp moom moom moo war a animer moo war a assurer leadership bi

et donc ça il faut le faire à l'endroit des enseignants pour les responsabilités davantage mais vous faites qu'un enseignant vous tout ci waxam rek da nga histoire, histoire, bëri histoire dafa bëgg a xaalis bu ne noonu pas réagir parce que nit nit la rek bu dee suite Sylvie. bi bon, ah, il y bon beaucoup de ministres des gens qui trop de problèmes là ils nous ne font que soulever des difficultés faites que perception vous nga ci am loolu rek ngay ngay dégg ci mais bu fekkee perception positive li avez Ndour écoute stéréo pas mono stéréo nga nangoo une façon yépp xamni on a des rôles différents yow nga mëna jël lepp arbitrer décider pour ñun euh, évidemment que ça confirme li nga waxone sur ça je crois que li wax aussi daf moy yob ci euh, la question des compétences dafa am solo qualification bo jëlé dañ koy togn Sénégal ñu ne boy out liggéey da nga nan comme bol ak yow France ñun le ban diplôme nga am ñu États-Unis lan nga mën kay dañ koy togné mais image bobu au delà du togn war nañ ko jangatat parce que ñun il faut ñu arrêter di am système bo xamni ay diplômé lay ëppale que ay qualifié diplômés ñaata docteur en ceci master en cela tel tel tel oui ils sont très bons hein, ñenn ñi mais amna suñu si bu ñu ñëwaatee tay, ñëw nekk ci Ismaël, il faut tant qu'à leen. donc nous fexé ba joxat place qualification même CV boy booy le CV quand kan lañu ñu respecté mooy ko xam amna diplômé aux États-Unis de Khoma ma amna université de Londres. ça c'est un complexe qui est là. Mm-hmm. alors que dañu nekk ci pragmatisme compétence Amna na ñoo mon diplôme mais pour nous valoriser won li les acquis de l'expérience, expérience. Mhm. doctorat. donc nan lañu fexé ba complexe boobu ñu am vis-à-vis du diplôme ba tax ñu si juger ou apprécier nit di ci wax ni ki baax qui est baaxul que le président euh, Diomaye ak le père entre seulement par des diplômes pour identifier les compétences euh, lolu pour nous, lolu aussi c'est un élément essentiel. et enfin enfin euh, tu as parlé de la formation des enseignants tu as insisté sur ça pour dire que ni ça ben mamel mais li may bañ mooy langue nationale moi enseignant Moi dans la réflexion sur l'éducation que ñu am ay nous ñu nekk dans une réflexion cloisonnée xam nga suñu réew bokk na ci li koy tardeel pour man loolu bokk na ci da boo déggal waa santé dañ naan secteur bi ëpp solo bi ñu war a toppatoo les meilleurs acteurs c'est la santé nga l'éducation, éducation ñu y secteur bi am solo la presse ñu communication sans communication rien ne va nga la défense ñu force de défense donc comment être dans une approche décloisonnée Nous savons que c'est une complémentarité santé am solo trop mais sans éducation Éducation, la éducation en solo trop mais sans communication donc comment réfléchir de manière globale Beaucoup de deful da ngay dans une réflexion cloisonnée parce que ni ngay def dans da nga langue nationale parce que tey mooy après nga fatani boy booy fecc nit dina ñew ne la dama febar wax la sama bop day metti bon mais su ma yaram bi da say mu am fi fo xam day am courbature mais tay de su may sax day metti est-ce que tu vas dire nañu régler bop bi kese après bu suba bu bop bi wéré nga ñëwaat do cette relation bi am entre metti metti yoyu donc nan la ñu amee approche holistique dans la solution dans les les les les recherches de solution pour ñun loolu dafa am solo loolu mooy waral nga créer na connexion bi nga bëgg def ak sport sport sans éducation oui sport sans éducation éducation sans sport mais de la même façon tu vas dire éducation sans je ne sais pas environnement éducation sans etc donc comment être plus humble ku le métier de nga nek nga japp ni mais ëppoo ki des. nan créer les complémentarités nan trouver des solutions globales boo regarde je donne souvent l'exemple et je finis par ça euh, sous amee euh, chaque fois des problèmes sécuritaires mooy sécurité routière Mm-hmm. ñu ne accident am na màggal gi wala gàmmu gi y a tant de morts tant de blessés ñaata yu oto truc léegi nag gouvernement bi dañ day woote pour waxtaan pour trouver solution kan lay woo mooy xoma transporteur yi ak xawma tu vois il comprend pas que pour nga régler problème mu sécurité routière du transporteur yi kese que éducation ban rôle la ci war a am parce que xëy na xale bi war nañ ko jàngal nu muy jéggee nu muy defee nu muy mm-hmm. dawalee que santé ban rôle la ci am moy les premiers soins buñ ko défé donc tant que nekkuloo ci gouvernement ou ay leaders yu nek dans une réflexion globale holistique pour trouver de vraies solutions chaque jour dañuy yakkar ñoo nga fajj parce que dañu nek seulement sur les effets on sera pas sur les véritables causes. bon enseignants yi ñooy suivre boobu ba léegi ñu ngi si seen question yu bari yo xamante ñi ñu envoyé waaye tey di def seen émission ñoom it parce que ñoom ku laal sen augmentation lañu bañ moo tax soo waxee rek dañ lay dañ lay dugg plateau gis nga. ñoom song nanu waaye tey sama portable aussi am ñu bëri ñu ma song ñoom yaay jënd ba jaar maa ngi leen nuyu de passage mais fu may dikkaate yow mooy si enseignement bi dañoo seetlu nii da ngay ñëw si ville bi école yi dina am ay enseignants ba am ñoo xamante ñu ngi ci taatu garab yi nga dem ci àll bi ñu naan la enseignants yi dafa manqué nga gis ni état indi ni da ciy indi pour solution créer benn pactole bu mu doon diviser nga xamante ni formé wul leen sax ay quarante cinq ñëw sànni leen ci loolu ko si def. ban solution la ci indi benen bi ci top sank yéen a ngi wax waxi distance mais je pense que ni même côté maire yi administration yi li ñu war def tey enseignement aussi parfois da nga tu as l'impression que ni enseignement état rek mo ci wara def or que collectivité territoriale aussi amna lo xamanteni xamante ni war nañ ko def ci enseignement bi loolu lépp ban ban ban solution la ci écosystème indal aussi. ouais mais je crois que solution moy sank da fay del rek ci principe yi wax. principe boy même bu nekkee dañuy agir dañuy fay action intervention dafa nek de manière coordonné de manière réfléchie collectivité locale mën na def loo xam amener njariñ pour moi, mais du am yéhital, du am efficacité ci ci ci ti éducation donc moi, comme jamono bi ñuy joxee matériel dans jox école boo xam ne dese woon na ko CREI yu bëri ñu joxaat ko ay est-ce que donc nan allons ñuy fexe coordination même bien am ci intervention niveau central à niveau décent euh, déconcentré mu am une coordination pour nous adresser les véritables besoins le fait am solo mais nous faire aussi ba responsabiliser les parce que man dama gëm ni euh, avenir éducation mo ngi ci li ma académisation cest dire il faut ñu dolel gox-goxaat gox-goxaat yi dolel boy da nga dolel inspecteur d'académie les inspections d'académie amuñu doole amuñu auto yu doy yi wara dem ci terrain bi pour des formations continue bi nga wax amuñu autonomie bu war xel nanguwul ba tey ngay organiser certificat CFA e au niveau national pourquoi régions yi duñ ko régler la question de euh, comment on appelle des contenus euh, mais et tout fi ma war a entrer pour am xam-xam euh, à Saint-Louis beaucoup ak fi mu war pour am xam-xam à Kédougou. Mm. Kédougou nekk zone frontalière am mine am tel tel tel comment faire pour que ñu am autonomie même ci biir ni ñuy jàngale ci biir contenu yi. Mm-hmm. loolu dafa am solo am autonomie ci ci yenn examen yi ci yenn concours yi dafa am solo donc joxaat doole académie yi. pour ñun mbir la boo xam ni euh, war nañ cee war nañ cee jublu te suñu réew malheureusement. ba léegi dañu am un pouvoir trop centralisé. Mm. bëri na inspecteur académie Ben, pour ñu jël décision il faut ñu am avalu avant le ministre donc nu ñu fexe ba wàññi tuuti pouvoir au ministère bi renforcer le niveau décentralisé y compris les collectivités territoriales Lolo pour ñun euh, mën nek buntu bi nga xam ne mën na am na loo njëkk a laaj ci loo xam ne jotuma bind. mais mais bala ba euh, ah, foofu mooy enseigne non ki muy wax non. dafa dafa leerul son xaar te bëgguma mu rëcc. Mm-hmm. c'est-à-dire ci li mu ni. nii euh, da nga bëgg wax ne par exemple région bu nekk ci programmation bi ci région bu nekk war nga mun am ben c'est spécificité qui programme d'enseignement. mais au niveau des à tout point de vue France pour ne pas les citer. Mm-hmm. par exemple calendrier scolaire ils ont trois calendriers. Mm-hmm. en fonction des zones calendrier que mais pas forcément même calendrier scolaire que euh, que que mm-hmm. qui est plus aride par exemple. Euh, période magal bi à Djourbel nga bëgg nga bañ ko ngay tëx nga bañ a tëx xam nga ni école du fonctionner pendant comme une semaine comment accepter que académie am pouvoir ne man période bi duma fonctionner mais temps bi yoral naa ko xale yi nan laa ko distribuer ci yeneen yeneen période xëy na dana am académie bu teel bu njëkk a ubbi inondation bu ñu koy wax ñenn ñi nga xam mun njëkk ubbi tey jàng tey mais ñëpp war nañu mën a en même temps. Qui ne man bii période laay ubbi kii parce que j'ai telle spécificité mais dinaa ko rattraper donc j'aurai moyen de faire de Pâques que fii fële fii laa ko rattrapé fa jël deux jours donc loolu la ñuy wax un système éducatif calendrier mais pas en ça c'est en terme de calendrier ça c'est mais en terme de programme aussi programme bi moom mooy maanaam fi ngay jafandu pour jàngale continue xam nga booy ins booy booy construire des connaissances di bâtir des connaissances da ngay jafandu ci ay faits tu n'es pas obligé yéen ñëpp ngeen entrer par les mêmes faits donc comment valoriser réalité terrain bi pour entrer par les réalités de terrain et acquérir le même savoir xam-xam bi moo ngi ne le lii la xale yi war a xam mm. mais kii fi mu koy jaaree pour xam ko d'accord euh, à Ziguinchor na wuute que qui fume koy pour xam ko à ni insister sur la question des royaumes que les gens insister sur d'autres problématiques qui ni insister sur euh, les ressources naturelles que les gens insister sur telle autre chose donc l'on la l'académisation académisation ça c'est un pouvoir euh, ensuite ñu aussi aussi le budget donc académie niveau décentralisé déconcentré war na leen calendrier bi contenu bi gëdd ci méthode yi gëdd ci moyens pour nous jàpp nañ ni loolu aussi dana yóbbu ci préoccupation bi ngeen amoon ci langue nationale parce que au delà de langue nationale li ngeen ci bëggoon mooy nan la ñuy jëlee en compte les réalités du terrain j'imagine que ça moo tax ma ne ne réfléchissons pas par des euh, par des événements ah des des questions que ça tu avais posé une première question enseignants yi nga xamante ne dañuy bëri si ah d' accord waaw voilà loolu loolu question de rationalisation la rek xam ni que euh, tey jii gis nañ ay enseignants yoo xam ni véritablement euh, loolu dama ci attaqué d'ailleurs yenn syndicat ñoom la ñu tuddee nan ngeen ko tuddee woon qui, euh, comment on appelle les, enseignants. Non, non, non, c'est-à-dire que le, dispositif qui vous permet, Gaï, de affecter comme ah, le, qui, le mouvement. c'est le mouvement, mouvement national. nous Pour, pour j'en parle souvent à des, à des secteurs généraux des syndicats. Mais, hein? mouvement national, qu'il y a des acquis qui font que nombre de tel, tel, tel, etc. Ce qui fait que tu peux avoir euh, un chef d'établissement mm-hmm. qui ne qui n'est pas un bon chef d'établissement mais il va être chef d'établissement parce que simplement en termes de points d'ancienneté voilà mais nous ne un excellent prof de maths et être un mauvais proviseur par exemple mm-hmm. donc comment faire pour que ce dispositif là puisse être revu pour nous, c'est un élément euh, important Moi, tax yenn syndicats qui di wax problème euh, avec le corps des administrateurs par exemple c'est important que l'on puisse aller dans ce sens là maintenant pour rationaliser euh, ressources évidemment que ne faisons que chaque fois Si dans la région de c'est une région de la da ngay gis surplus à Thiès. Mhm. am déficit à Tivaouane. Mhm. c'est un problème. mais parce que aussi dafay am la main du des politiciens ñi nga xam ne ñooy rocc fii ay jàngalekat yóbbu leen extra ñu jël ñoo xam affecté dans les trucs ça pose problème donc il faut nous rationaliser mhm. optimiser dépolitiser dépolitiser loolu moo lay waral li nga am ci ressources humaines nga xam ne lii nga yor yow ci ressources humaines ci ay nit ci ay jàngalekat nga xam nan ngay objectivement distribué te boo distribuer ki nekk ci gox-goxaat yi warul am warul gën a ñàkk ay enseignants qualifiés ou compétents que ki nekk ci biir. xale yi doog a génn seen formation. affecté leen ci école village yi nga xamante ne amul école aussi. Tafa merci boobu. waaw bon ñu ñu terminer ci boobu. boobu aussi bu ñu ci ah, terminer mooy. Ah, euh, c' est un problème parce que xam nga yenn saa yi nga jël enseignant mu génn école rek nekk ci benn. li ñu tuddee xale bu nekk na saa mu nekk xale bu ndaw. ensuite mu nekk dans une zone boo xam ni école bi mooy classe bi ça veut dire que si day nek multigrade am ci trois classes amul mac, amul doyen bu koy encadré lolu c'est un problème c'est sa inspecteur l'eau. donc enseignants yi yobou fofu euh, évidemment ñu sommes des jeunes sortants ça peut poser cette question mais il y a un mais Pour xamni c'est intéressant et nous on n'a pas encore la réponse le mais une zone bi gën di am ay nouveau moy Matam résultat bac yi passé avons un autre résultat ça c'est un mais pour dire est-ce que problème bi ancienneté cassé? la est-ce que xalé bi buy doog genn du am ben motivation bo xamni da koy jaral supplémentaire muy ñëw xam je sais pas j'ai pas encore on n'a pas de réponse comme j'ai dit ñun dañ def gëstu mais questionnement moy mooy nañ ni amna ay zone yo xamni ay nouveau rek lay affecté et pourtant il faut de bien meilleurs résultats loolu am na nañ ni ñun ñep ñu nek enseignant première fois bu ñu yoré classe d'examen résultats yi ñu defone xeyna mo moo dernière fois donc seetlu nañ ni ñu nek ci gox-goxaat village yi euh, même bu fekkee formation bi comme tu dis manque na leen encore euh, du temps pour nous éprouver quoi euh, temps bi ñu koy jox bokkul ak ki nekk ville nekk Dakar ou Thiès ou dafa am leneen lu ko attirer xarmat da koy am leneen lu koy attirer dem jàng jiwaat dafa am leneen lu koy attirer donc il y a ces éléments donc loolu ay seetlu la yoo xam mënuñu ci wax parce que dafa guñ ci gëstu bu ñu jox tontu bi bu leer mais daal ça se défend. ok je je vais donner ñaari préoccupation pour terminer fi mu toll nii temps mat na sëkk à monsieur Samb et monsieur Ndoye monsieur Samb euh, qui nekk organisation parentale yi donc am ci taxawaay ak monsieur Ndoye aussi responsable syndical ñu def seen préoccupation bu ko defee ñu daal di jox monsieur Mbow mu daal di terminer. ah d'accord ci commission bi parce que ñu toll nii nag. mais je vais je vais demander la permission de venir là. Je vais vous dire pourquoi. Merci. parent. merci je suis parent d'élève. Euh, c'est un honneur pour moi d'être devant vous. mais pourquoi j'ai demandé l'éducation vous êtes d'accord avec moi c'est pas seulement à l'école. ça. va jusqu'à la maison. que émission. Hum. je vais t'écouter je serais fier de toi. ma nous ñu parqué excuse moi papa Souma même si nous invité ce n'est pas parqué bon C'est pour dire que voilà le représentant du centre de l'école de l'éducation qui n'a pas une place qui scie avec son rang l'école c'est pour l'élève aussi longtemps que toutes vos émissions qui sont des émissions éducatives, ne tournons pas autour du besoin de cette école, de cet élève, nous allons faire faillite avec notre éducation. Mm-hmm. Et c'est lui qui représente l'élève ici et le parent. Mm-hmm. Je ne dois pas être invité, mais l'élément moteur. Mm-hmm. Le deuxième élément, euh, j'écris rage au désespoir. Parce que je suis un vieillard formaté à l'onde de mes ancêtres, mmh. les Gaulois. Et je dis j'accuse. Qui va s'il vous plaît, monsieur Et moi, j'accuse. Balma parce que c'est un homme qui a toi. Hmm. Mais m'a arrêté parce que pas mon qui. Mais qui euh, DE hmm. euh, dama don togn motax ma len di wax loolu. DE dama ñem am dama am quelques préoccupations wul mais dama koy tënk problème bi un système inclusif hmm. de l'éducation xam nga lu koy màndarga hmm. jàngul suñ ko waxee moy lan ku jangul tuba école du tuba way dimbalé leen ñu ñeneen ñu jàng leneen yi ñu ne jang nañ hmm. et qu'ils soient fiers au même titre que celui qui a fait l'école française il faut que vous travaillez dans ce sens l'argumentaire la transformation des mentalités pour qu'on soit fier de ce que nous avons et qui ne vient pas de l'extérieur. Le deuxième élément, c'est le financement du système éducatif. Nous avons deux défis. défis. Le défi de la gouvernance financière, c'est un problème fondamental. Il y a des manquements. Ça ne résulte pas de manque de moyens. Mais c'est parce que nous, gérons, ce n'est pas efficace. Nous sommes privés. Nous savons ce que c'est que la rentabilité économique. Je ne parle pas de rentabilité profit, mais rentabilité même sociale. La gestion financière est important. Le deuxième défi, privatisation. Vraiment, c'est un problème fondamental. Nous parents niches. Le cadre scolaire lui-même est privatisé. Les ressources humaines, il y a acteurs se sont privatisés ñemewuñu leen moo motax duñ ko wax dañuy grève école publique dem école privée dem qui une concurrence déloyale parce que vous ne pouviez pas faire pendant sept heures bi nga xamné da grève éduquer dem jàngale ci c'est déloyal il faut que ces deux défis ko si def un défi qui est important de réfléchir sur le défi du numérique Il faut que les di kër ga de WhatsApp de travailler avec ces sommités pour que nous proposions des choses le dernier jeexal naa la dichotomie qu'on fait entre politique et école hmm. mais l'école c'est le cadre de formatage des dirigeants c'est ça et vous voulez sortir de la politique de l'école toute notre orientation des nations provient de l'école, des universités. Nous savons qu'on minute 68 les transformations qui ferment sur le monde. C'est un leurre de dire que politique de l'école. Ban politique de l'école c'est le questionnement. Il faut que c'est de Merci. Euh, waa xaaral après wa rahmatullah waaleykum euh, ñu leen dund nuyu xam naa nuyoo bi dañ ci sore ndax temps bi njatt ah, nañu ñu ñaan Pape Ablaye bu mu indi réponse ndax hmm. comprendre nañu hmm. euh, doyen xam naa day takkine rek waaye ah, posture bu ñu bu ñu mu nekk lu ci am solo mooy ñu nu mu ñu contribuer ci doxalin bi hmm. ak tamit jël même bu ñu contribuer wul woon ci suñu wax ci tok buñ ñu tok am luñ ñu fi jëlee dem dina tax ëllëg ñu ëllëg ñu mëna ñu mëna ñu mëna wax ci li nga xamantene peut-être bu ñu interpellé ci ko si dem wala ci li nga xamantene ne jot na fee am ci ay waxtaan day am fo da ngeen may may nak man syndicaliste la peut-être je vais me présenter auprès du doyen c'est Amadou Bamandoy mm. je suis le secteur général national euh, du syndicat dénommé Synergie des travailleurs habiles de l'éducation du Sénégal mm. defe naa boo synthèse boo tegee sunu émission bu njëkk def fii day mel ni buy wax day mel ni maay wax ndax ñun dañoo jàpp ne dañoo war a bokk ci entrepreneur de changement yooyu ngay wax parce que ku ko jàngul da ngay defee syndicat dafa isolé wu ak yow li ngay wax alors que syndicat rôle bu njëkk mooy mu xalaat dañuy naan avant de poser une revendication il faut avoir l'argumentaire de la revendication mooy les solution yi ngay proposer yow waaye li ñu seetlu ci yaa ngi koy wax sax nga ni syndicat dañoo bëri waaye damay faral na syndicat dafa am ak syndicat syndicat nga bind ko S majuscule ak syndicat S minuscule dafa am wala entre guillemets kon loolu fu ñuy pousse mooy ñun COSYDEP lu ñu koy ñaan mooy dans ses réflexions ak lu muy proposer état numérique bi mooy nombre bi Nous ko la représentativité par rapport au nombre. 1000 enseignants 7000 enseignants, 10 10 limite dans le mouvement syndical. lan des critères de représentativité. la production de production la syndicat formation nous des critères critères nombre de bu boobaa mu doon benn package boo xam ci la ñuy defee représentativité bi ndax ñun da dañ jàpp ne ñun synthèse am na lu bëri loo xamante ne xalaat nañ ko teg ko mais fii loo xalaat teg ko pour le système boo waxee c'est au bénéfice de comme dañu wax représenté nañ pousse ñëpp ñu réfléchir moo tax ñun buñ toogoon ak yow tey toogoon ak COSYDEP mm. di xam ñu réfléchir nañ ci système bien que nous sommes un jeune syndicat on a réfléchi sur les hiérarchies tey de motivation bi da ngay yow da ngay am bac nga def formation bac plus 1 CRFPE Qui nekk école normale def bac plus 1 ñu ñëw hiérarchie ñu ne instituteur bi moom bee lii la kii doon bee même nombre d'années de formation bokk même diplôme déjà dans le même système am na incohérence yi nga donc sur le plan salarial il am incohérence ci am par rapport au passerelle complexe wax nga complexe diplôme da ngay gis koo xam ne CEAP CAP une possibilité par exemple def bac wala def licence wala def master mais pourquoi pas ñu créer des passerelles yo xamantene dañuy créer surtout euh, s'il le faut CAP2 ou bien euh, licence en éducation master en éducation par la capitalisation des années d'expérience oh. nous permettons permettre ko mu jóge élémentaire de ma doon professeur d'université bëri na ci lu réfléchir lu ñu a wax fu may daaneelee hmm. peut-être donc, ko bëgg wonné rek

institution la mais bu am njëriñ dans le dialogue social dialogue social boko denké ministère ministère c'est est-ce que dina doy hmm. parce que dañ le ministère chargé des institutions et des eh, institutions. Moi, japp ma ki bi parce que lu la mais xam nga di nga comprendre lima ma bëgg wax hmm. dañ ko dem kon buñ ko génnee suñu entendement dañ koy dugal ci ben ministère kon lolu est-ce que dina am pertinence wax ji mënoon na gën a yaatu mais buy wax dafay mel ni synthèse mooy wax ndax boo ah, dégloo suñuy résolution con congrès bu ñu la ko joxoon ni nga xam ne ñun on est en avance parce que dañoo jàng syndicalisme dañoo xam lan mooy syndicalisme balaa ñu koy kii kon jërë ngeen jëf merci ok merci euh, jërëjëf ah, moi moi je pense que peut-être même que tontu na la ah nga bëggoon lijjanti je pense que euh, bon comme tu dis ah monsieur le syndicaliste là Amadou Amadou Ndoye je pense que Amadou Ba donc euh, je pense que Amadou Bamba Ndoye je pense que les nga wax non quoi ça veut dire que ça montre encore fois li ñu waxoon ko Sénégal amène euh, des acteurs qui très très compétents qui sont dans la réflexion ba xam ni rôle ministre bu vous donne doon bu jëfandikoo ci loolu mën na nekk ay bunt pour mu tekki quoi euh, gëm ni syndicats ils sax changé posture ah ñu signer, si si tout ce qui est proposition euh, réflexion anticipatoire. Il a beaucoup de propositions qui viennent de beaucoup de syndicats. Ça, donc, je crois que c'est un élément essentiel. Maintenant, pléthore, du problème syndicat, C'est y a d'ailleurs. problème au Sénégal, pléthore, il y petit parti politique, plus de 300. Pléthore, il a un mes amis de la Venezuela. Ah, pléthore, de y un petit. Souvent comme ça, il y a ñett jàkk yoo benn du ci am donc lolu aussi parce que Sénégal le yi ASC suma koñ amna ASC bu mag bu fa nekkoon di gagner chaque fois jël coupe bi mënatul gagner parce que léegi ñent ASC tas nañ débrouillé nañ ba mu nekk quatre ASC ci koñ donc lolu dafa melni Sénégalais bu def dafa bëgg diriger tout le mënta nekk mm-hmm. donc li président euh, Diomaye mom moom war na parti politique yi pour réguler ko je crois que il faut l'appliquer à toutes les organisations y compris même ONG donc ñu mën filtrer euh, am ay ay critères yu leer yu tax ba ku nekk euh, li tax nga juddu li tax nga jóg nga mën ko amal njëriñ mais mu bañ a nekk loo xam ne day day day nekk kese pour nit ki mooy jeu de positionnement donc tout à fait d' accord sur ça maintenant euh, le reste mooy je crois que wax nga ko ah justice dans le traitement loolu aussi je reviens pas yàgg nañ wax ni mënoo am ay enseignants yoo xam ni ñeewu même heure di liggéey même chose ensuite ñu leen traité de façon inéquitable parce que c'est des questions yi nga xam ni peut-être que ce gouvernement là aussi est, est attendu et puisque ñoom ils parlent d'équité parce qu'ils ont subi disent-ils beaucoup de d'injustice je crois que ces questions-là, euh, on peut espérer que ça peut trouver des solutions. Maintenant, mon ami parent d'élève, je pense que vous avez raison. Hein. peut-être que tu as invité, mon top fi Khayna Bis invité, peut-être même invité une parent d'élève. Euh, Synthèse disait qu'on l'a une fois invité, moi top fi Mais l'idée, c'est comme vous dites, quoi, que sur notre système éducatif, qui comme moi, moi, patron ou moi, moi, le parent. Parce que le parent, moi, moi, failli enseignant, moi, failli ministre, moi, failli, nous, nous, fonctionner le parent yow ya jël risque yow en tant que état ne jox ma sa dom ma yaré ko ni ma ko donc il faut mu déglu parent bi le parent xalé bi bu yaro bu ñak yaru mom lay ñëk a impacté donc parent bi dafa au cœur Sénégal nak donc théoriser l'école de la communauté mais parce que le parent aussi am na fay défi hein. association parents d'élèves yu bëri du am euh, du am du am mouvement C'est presque les mêmes parents qui sont pendant le truc C'est un petit groupe de 3 4 5 personnes donc il faut que yenen parents ñu am aussi euh, ñu jox pour jàpp ni école bi seen école la kat bi dañ ko fa affecté tay bu subaa ñu jëlee ko fa yóbbu ko feneen mais parent moom dafa jóge donc euh, centralité parent bi euh, loolu pour ñun dafa am solo mais à tout point de vue c'est-à-dire que si biir ni muy engagé wu ah du nekk rek kese lu muy réclamer mais moom aussi si biir posture am nan lay surveiller école bi qu'est-ce que ça passe et donc pour nous euh, wax nga ko am solo. un système inclusif tu l'as dit je crois que bon loolu moom tu confirmes rek plateau bi. boobu ba léegi on avait parlé de la diversification des offres égalité des offres entrée yi mën na différer Qui day duggé par école coranique est éduqué ci école classique bi est éduqué ci école de formation est éduqué ci leneen mais bu ñuy on doit pas avoir des sénégalais qui vont se regarder en chef de France. donc diversification des offres dafa am solo mënatuloo am système éducatif boo xam ne damay jël même costume bi solo ko ñëpp man costume bi may sol bokkul ak bi ngay sol bokkul ak bi ki di sol kay robb bi sol bokkal robb si sëram bi li sol parce que tolloowuñu yemuñu bokkuñu taille yi yemul donc il faudrait ait un système éducatif bu intelligent pour xam day mën adapté wu ci euh, demande yi nga xam donc l'entrée par les offres xewi on est à l'ère de l'entrée par la demande parce que amul kenn kuy bañ éducation donc l'on nga wax amna solo ci diversification bi ak avoir un système éducatif inclusif mais le mot inclusif inclusif il faudrait dans dans inclusif il faut veiller à aux plus vulnérables c'est-à-dire que ñan ñoy ñi nga xam ni ba légui système bi mënu leen capté xalé yam handicap parce que école bi niñ ko bindé tax na ba mom par force dañ koy exclure yenn jigéen ñi dans certaines zones dañ koy exclure Pour demee yenn ñenn ñi dafay am ay minorités linguistiques dans certaines zones minorité ethnique donc il faut dañu am système éducatif boo xam ne ñun dañuy xam ni yow sa doom bu amee yar bi war te doomu sa voisin melul noonu moom si bopp day nekk en risque donc yow da nga am intérêt toppatoo sa jàng doom mais da nga am intérêt aussi sa doomu euh, voisin dugg ci l'école lolou moy waral nga am ben sénégalais parce que soy yar sa dom yow nek dañ la yar comme école de secondaire extra am nga nun la formater sa kër am nga nun la yaré nu wee nu man nañ ma yaré suma kër man amna luñ ma gëmloo am na fu ma ki extra mais il faut ñu am nak ñu am ben Sénégal bo xam man ak yooyu dañ ci retrouver wu bo xam day dépasser nos propres familles il faut ñu am benen famille bu tuddu école bo xam nak mom moy combiner yar yoyu mom moy créer les ponts entre yar yoyu ba nga xam ni man ak yow bu ñu suba

de théoriser les 4 S. vous vous am un système éducatif boo xam financement nous, nous nous ñoo théoriser au plan international d'ailleurs parce que ay temps yu Sénégal comme référence Nous le Sénégal li muy budget plus de 24 26 ça dépasse les normes internationales on a dit attention si wax financement un budget vous yem kese c'est taille bi def 25 nous cent un de milliards mais war nga aussi euh, équité bi est-ce que ce financement est ngay def tax mu y compris les écoles publiques war nga aussi transparence bi est-ce que le système bi ngay def financement bi ngay def euh, tey journaliste bi Ismaïla bu bëggoon am information sur le budget de l'éducation xam ñaata la ñu prévoir ci abri provisoire ñaata la ñu ci exécuté dina ko mën a jot est-ce que waajur mën na ko xam yow parent d'élève xëy na boo tu vas être plus solidaire plus sensible pour mieux appuyer le système éducatif en termes de financement donc il y des questions ak question déconcentration bi mooy nan la ñuy fexe ba dispatching bi mon école équitable ba nga xam système éducatif pour te am encore bon numérique tout à fait euh, en phase parce que c'est des exigences euh, c'est des compétences euh, euh, qui sont qui s'imposent à nous yoo xam ni ignorer ko mooy doom mais le lieu pour nous c'est que régler mooy ñu puisque nous am un départ un espoir d'un vers ne pas les réformettes il y a eu beaucoup de petites réformes là mais de véritables réformes ou une refondation boo xam de dana fondé wu sur une évaluation de l'existant lan la état de mise en œuvre fondé sur l'évaluation des des des réformes qui ont été déjà engagées def assise nationale def nga CNAES am UVS am le système LMD dix ans après qu'est-ce que ça a donné a une force y lan une faiblesse fondé wu sur la fondé wu sur les contributions des organisations que nous sommes Lolé yëpp ko sur les demandes des communautés bu ñu ko defee danañ mën du juboo ci le système éducatif que nous voulons ak donc politique école je crois qu'on est en phase on est contre l'instrumentalisation de l'école mais il y a une politique un acteur euh, de l'éducation parce que les mi son ba à bas mais être dans la réflexion dans la projection euh, moi je le dis, je dis il y a beaucoup de partis politiques ou d'hommes politiques qui ont train de politique parce que moi j'ai une hypothèse de développement. Pour moi ce pays se fera ou pas par l'éducation, ça c'est politique. Quand une hypothèse, mon communisme, les dugg part par social man damay dugg par l'éducation, comme tu donc il n'y a pas plus politique que ça mais évidemment qu'il faut différencier ça des postures politiciennes on connaît hein posture politicienne xam la instrumentalisation sa donc de ce point de vue je pense que c'était ça un peu les questions qui étaient là avec liñ ci il a nga un ne am nañ ci documenté avec euh, ah am référence am questionnement hein, mais donc su nekkoon ni Euh, dañuy tëj daal mooy euh, di leen di kontaan ci émission ah. di leen sant bu baax ci eh, waxtaan wi ak. Euh, mais blouse yi saafara bu jur jàngoro la de. waaw non blouse xam nga ñun dañ ko dàqoon ñun dañ koo xeex ñun dañ jàppoon ni blouse am na solo mais de priorité te jàppoon nañ ni blouse du mbirum niveau central niveau collectivité ñu xeex ko bi ñu ko xeexee at bu njëkk bi amul. mais dafa mel ni gars yi dañu doon gëlëmal pour ñu xaw a fàtte après ñu avancé bi ñu avancé lenn si li ñu doon ragal mooy après ñoom da dégg ñuy xuloog artisan yi donc non l'histoire des blouses la 30 milliards 30 milliards xajoon na si yeneen priorité man soo ma joxee 30 milliards damay li may lijjanti mooy école nañ am ndox ndox ndox na école yëpp am ndox école yi nañ tëju dafa am benn minimum boo xam ni boo amee lu ndaw da ngay xam noo ko moom moo moo moo arrêté suma ah. tey ñan mais am na tey ñoom ñoo xuloo ñoom. dëgg de am na ñoo xam fayu ñu leen dañ leen yoreen artisan yi man daje nañu tey bi ñun bi ñu waxee d'accord ñu ci blouse yi waxuñu d'accord ñu blouse de blouse de mais pour ñun c'est pas niveau central moo ko def niveau collectivité on l'a essayé à Ziguinchor dans beaucoup de régions yi nga xam ne mairie bi moo koy organiser d'accord dañ ci loolu gis nañ am na initiative CM yeeg lycée yi presque am nañ blouse te amul benn mais boo jëlee ay 10 milliards fois 3 bëgg koo ne da ngay créer bourse pour ñun beneen affaire le business la quoi donc en terme de priorité jamono bi ñuy wax bourse mooy jamono corona mhm. corona école yi amuñu ndox suñuy doom mais écoute nañu am ndox nañu am toilette gannuwaay buy fonctionner mhm. donc bu nekkee da nga am lu yem il faut nga hiérarchiser say say say priorité donc waxuñu benn yoon d'accord ci Ismaël su may tëj maintenant j'espère que sa gars yi dama bàyyi ma tëj alors donc damay tëj ci ci sant la <laughs> sant euh, salon d'honneur bu Prestige TV. sant waa Thiès ñu déglu apparemment ñu bëri ñoo ko doon suivre doon wax. Euh, sant waa ku si dem. ñi nga xam ni ñooy tax ba ñuy am euh, ay arguments am ay données yi ñu mën a waxtaan ak askan bi parce que comme j'ai dit man ouvrier wu ko si dem laa ñi ñooy tabax ñi si gox goxaan yi mooy organisation yi même syndicat yi mu wax ils sont membres de la ko si dem mooy waral ñun lu ñu def lu ne ñun def nañ ko mais syndicat bu ko neexee jël de maa ko def ONG bu ko neexee jël ko maa maa ko def parent d'élève bu ma neexee na ma parce que ay membres donc sant ñoon ñëpp de leen remercier pour invitation di ñaan borom bi ñu parce que euh, Sénégal dafa nekk ci beneen cap booy déglu askan wi espoir ngay sentir yakar gu rëy moo fi nekk n'y nañu la diable ba yaakaar googu ba ñu parce que peuple bi fi nekk peuple bu mature la bu xam li mu bëgg la bu xam mu jëm la et donc loolu je suis sûr que mon ngi ci président Diomaye ak gouvernement am ñu leen di wan leen ni évidemment yoon bi ñu ne ci rupture principe yi ñu yi ñu wan yi ñu jox pour le moment dañu wax vision bi ñu wan pour le moment dañu ko wan ci télé décider ñu ko vision boobu baax na parce que vision la boo xam ne li ñu wax ni fa lay lalu mooy gën a déglu askan bi gën a am proximité ak askan bi li ñu wax moom mooy humilité li ñu wax moom mooy euh, efficacité mooy résultat bañ a nekk ci théorie loolu nag li des mooy ñu jëmmal ko pour jëmmal ko nag ku ne da ci am rôle ñun ko si lépp dañu jouer suñu rôle suñu rôle mooy sànq naa leen les lu wax bind monitoring ensuite def ay def ay propositions dans ce sens là donc loolu mooy suñu rôle te incha allah dana jouer. aussi euh, sans wax aussi peut-être deux ou trois demandes urgentes yoo gouvernement bi di xaar nañ ko ci benn bi la refondation du système. tey dafa mel askan bi tax ñuy wax école askan bi trop wala gisul trop ci école bi. Mhm. nañ def nañ def sur place ñu taxaw école pour mu ban Sénégal lolu pour ñun jot nañu engager ko. ta engager ko jafewul parce que organisation yëpp préparé wu depuis biñu waxé biñu annoncer réforme yi tay ji lolu bokk na ci ñu ñu laaj comme priorité comme demande. deuxième demande moy la résilience du système système éducatif dafa deugal a système éducatif wa am ay kat yu doy yi mëna a tax ñu suivre xalé y compris xalé bi gëna a comprendre ba nga xam ne classe du fess système éducatif dafa war école bi dafa wara a nekk loo xam ni mooy li ñu suñu institution scolaire ni mu amee palais c'est une institution l'institution scolaire mu mel noo xam ne xale bi bu fay dem du yàkkamte sax ñibbi ñun bi ñuy jàngi école bu ñu demee dañu dem ba gardien bi dañu dàq naan ñibbi leen enseignant bu duggee ci classe ba bu duggee ci école bi du yàkkamte ñibbi parce que am na benn minimum fa nekk minimum boobu bu nekkee da nga am dans une perspective ouverte mën na fi nekk eaux et forêt vert ñu verdir suñu école tabaxaat suñu école def ci ay mur donc loolu ñu tuddee résilience du système lañ ci jublu ndox école bu amul ndox école bu amul gardien école bu am femme de ménage école bu amul toilette euh, yooyu dafa nekk ay mbir yoo xam ni pour ñun jot na njot la ko mooy deuxième demande troisième demande mooy li ko doon wax revaloriser l'offre publique d'éducation jot na parce que ñun ñëpp tey président euh, Diomaye ak président bi mu wuuti Macky Sall ñoom ñëpp ñoo ngi jógee ci école publique kon bu école publique amu woon xëy na li ñu doon ak li ñu xam mën naa manqué xëy na je dis bien ñun ñëpp si ñun genn wàll ñu nekk suñu génération yëpp école publique moo tax ñu doon donc nañ ko joxaat gëdd joxaat ko gëdd mooy ci ni mu bindoo

école privée yi judd bo dans le monde de l'Afrique anglophone amna na la marchandisation des écoles boutiques comme ni ngay jékki-jékki école yi judd di quoi école bo xamni ben kër la wala man yor na sama euh, suma ben garage mécanique euh, légui auto amatu fi doxatul ma remplacer ko damay def business pour def ko école donc il faut ñu réguler école privée yi kenn waxul dañoo compte école privée mais école privée dafa war pour compléter l'offre publique L'offre publique moo nekk devant donc sous ce plan là il faut que nous cartographier xam yan école privée ñoo fi nekk xool ndax nek nañ on normes contrôler leen réguler leen donc lolu dafa jot ñu egg ci sinon li ñuy dal moy day nar nek business day nar nek lo xamni euh, business lay doon manam kiko fay tabax lim ci jital ce n'est pas mu yar xalé yi wala mu jappalé état mais dafa jital damay comme ni may amé immeuble ne damay loué dama amé auto ne damay outil xaliss non tam lay defee école pour am xaliss mm. te lolu waru mëna nek vocation privée donc lolu aussi euh, bokku na ci li nga xamni Euh, seigne Ismaïla euh, yaakaar nañ ni euh, gouvernement bi nga xamni nek nañ fi te ñom ci yaakaar parce que xam nañ suñu bari ci ñom que danañ djublu ci yoyu dañuy fatali parce que ñun suñu participation ci gouvernement bi moy di fatali mais tek lepp nak ci deug parce que aussi boko tegul ci deug rek deug da na dab bo ñëwee top ciow li ba baña a sa mission di wax lo xamni ne loko la loko fenn boba yit ciow da na dab donc ñun dañu bëgg constant ba nga xamni régime bu fu mënti nek dañ koy traverser parce que amna ay principes yu leer jéxal ci Euh, jaale Sénégal yëpp euh, ki nga xam ni kilifa la gu mag bu fi wàññeeku muy euh, le premier ministre Boun Abdallah moom it représenté woon nañu ko suñu rencontre bi ñu liggéey ak moom ci dossier yu bëri mu nekk aussi un homme d'état reconnu ku amoon tey amoon dal ku mënoon déglu mm-hmm. moi je me rappelle toog na ak moom ak ay ministres ñuy def réunion bu xawoon tàng mu arbitré à ma faveur parce que toog na déglu xool ne kii

parce que nit moom nit lañ ci bëgg. te nite mooy nga am euh, yëg-yëg si ñi nga xam ne ñooy ñi ëpp coono wala ñëpp jafe-jafe. donc jërëjëf sant jërëjëf kontaan nañ bu baax euh, monsieur euh, Cheikh Mao di directeur exécutif tey wax naa ko ci commencement émission bi. Euh, problème éducation yëpp xajul ci benn salon de on a tout essayé ak li nga xam ni moo di la nouvelle démarche bi nga xam ni mi ngi judd ci réew bi essayer de tirer Euh, les points essentiels pour pouvoir en discuter mais li nga vous ni moo di jafe-jafe bi nekk ci wàllu njàng ak njàngale yëpp euh, xajul sax waxatuma la ak bu émission kër gi yëpp jagleel ko loolee lu tax ñu trouver li nga la solution mais on a essayé juste de trouver les points essentiels pour on en discuter et essayer de trouver des pistes de solution merci beaucoup monsieur Mbow d'avoir répondu à notre invitation Tago fast track nag lay doon doyen tàggoo fast track waaw waaw kàddu gi sax day du du du du yaatu euh, sauf sama wax rek ci euh, monsieur mbaw Mbow euh, wat Sénégal gep ñaanal le premier ministre bo fi génne yàlla xare ko àjjana mais diko diko remercier mom diko ko remercier kaddu sante la rek ak ak gërëm parce que Euh, qualité émission bi moi j'ai été vraiment très séduit et je pense que ñun inquiétude yi ñu yëkëti won yëpp ak laaj yi ñu yëkëti won les réponses ont été très claires mm-hmm. hein, pertinentes et puis Euh, damay feddaliwaat rek li ma waxoon yéen cos euh, COSYDEP ñi euh, ngeen taxawee gouvernement bi daf leen war di déglu parce que bu ñu leen dégloo crise yeeg yenn problème mun na wàññeeku looloo doon laaj bi mu njëkkoon a laaj xamoon naa lan moo taxoon ma teg ko fa te bi nga développé wane na ne suñu buggee regle sunu problème mu éducation ñu mel ni yéen coalition bi dañ leen war a déglu parce que émission bi yëpp amu ci dara loo xam ne xaw na nuroog sax luy nekk politique partisan et c'est ça la pertinence loolu nag soo amee ay coalition yu mel noonu soo buggee jëmale mbir mi kanam da leen di bàyyi noonu pour euh, l'intérêt de l'éducation ma la ci remercier bu baax a baax de le souhaiter un très bon retour di ñaan Euh, déwén nag jàmm ñu gisee waat fii euh, ci euh, gisee bu gën a bu gën a neexaat ni mm-hmm. nga xam ne bu ñu toogee dinañu évaluer na ah la ñu waxoon kat gouvernement bi def na ci ay jéego yu mucc vraiment man mm-hmm. sant naa la gërëm naa la maa ngi maa ngi sant bu baax di remercier ñi nga nekk ñi nekkoon fii yëpp bokk ci plateau bi c'est l'éducation l'éducation c'est tellement important Fatou mu ngi jàkkamti mais nag éducation mel noonu <laughs> mënuñu fay waxtaanee dara lu dul éducation bi mu ngi jëm kanam sant gërëm ñun la ñoo moome ñoo moome non je demande de me poser mais kan mooy dictateur ah, ma laaj rek tey dama laaj rek ba léegi question la pose rek. mais man tey waxuma lu bëri tellement que j'étais content. merci beaucoup doyen je rappelle que am nga taxaw bi am solo tey ci émission c'était pas évident. Mhm. ci taxaw bi depuis fort longtemps yaa et c'était le moment aussi ma seede lu mhm. parce que l'éducation te tient à cœur. et ça wan nga ma ko wanati nga ko. un grand militant hein. oui un grand militant donc merci beaucoup. ah merci beaucoup à toi Ismaël yow laay remercier bu baax parce que euh, da nga permettre une chose parce que le salon d'honneur en principe dafay am invité rek comme ay chroniqueur. Mhm. tey jii da faire def exception pour monsieur Mbow.

kon ñun en tant que télé dañu wara fexé ba jox cër boobu éducation té ku mel comme COSYDEP su fi togué comme Cheikh Mbow tu sais que man papa que nek nekk COSYDEP mais dafa nek xamna ni amna lu bëree bëri bëri loo xam mën ko indi mëna ko léral mhm. et c'est pour cela que j'ai voulu par générosité en faire profiter tout le monde non la woyé qui est un secrétaire général du syndicat maa ko lay remercier bu baaxa a baax euh, nga xam mom moy Cheikh Bamba

de créer une rencontre intergénérationnelle dans dans dans dans dans et ça c'est déjà le sens de l'anticipation, c'est important. Il y a des gens qui ont des gën réduction des comptes etc. war a ko inviter bi inviter les ce qu'on appelle les managers publics. di rendre compte am ñuy nangu am ñuy dul nangu mais ñu koy def. Mhm. déglu ñi nga xamni diriger ay structure scolaire wala yeneen sax quelque fois. Mhm. ñu leen di déglu par rapport ak li nga xamni mom la leen dégg. Mhm. yooyu yëpp ko ci def ñu koy et pas seulement à Dakar ni à Thiès mais dans les 14 régions du Sénégal et depuis des années. c'est ça yooyu xam nga dafa am solo nit ñi xam ko nit ñi xam donc lool mo taxone rek mais vraiment ma ngi encore une fois remercier le Ismaïla. merci par rapport à cette émission là di bokku ci jaal tamit par rapport à à Abdallah. de encore euh, wax ni que euh, Fatima euh, gis ah, mais la ah, mais vraiment même moment même si tu es provocateur, je pense qu'à <laughs> Parce que tellement tu as mis le doigt sur ce point important, Grand grand, grand grand grand voilà encore une fois gars merci beaucoup. merci beaucoup monsieur euh, e, il est tellement généreux que je sais que je peux arracher sa générosité. Et à chaque fois, c'est ce que je me fais. C'est pourquoi je me suis permis d'arracher cette générosité. Mais je salue vraiment la COSIDEP. Et sous son leadership, vraiment, nous avons une atmosphère d'inclusivité. Excellent, excellent. Ça, je vous dis, hein, ce n'est pas des paroles. Mhm. Hein, vous voyez sa capacité de négociation. Mhm. Tout de suite, hein, parce qu'il est très généreux et de la générosité. Merci beaucoup, Bon, c'est normal que tout le temps, je mais je Je suis liñ ci am si maîtrise c'est grâce à ki nga xamante ne mooy doyen. Mbaye parce que tout le temps suñuy wax si ko si def yooyu yëpp gis nañ engagement bi mu ci am la seede Thiès moom représentation moom. ak man na quoi la sant la gërëm di gërëm ñu bàyyi kër ga. tey ci ànd bi ruube nga doyen Mbengue wax na ko am na dictatrice <laughs> merci beaucoup. waaw leen rek ñaan yàlla vraiment émission bi liñ fi waxtaan yëpp yàlla nekk njëriñ liggéey la nag primo votant yi ngeen di observé. <laughs> ah bon moo gën soxla waxtaan ah, je l'ai foo ma joxee mission rek damay daw. vraiment te xam naa ne suñu njëriñ rek lay nekk def nga ci liggéey bu exceptionnel comme ni ko Moustapha waxee rek suñu xamee ko si dem yow yaa tax vraiment à chaque fois nga dëkkal ko suñu nopp yi waaye tamit boole ci li ñu wax lan mooy njariñam ak euh, combat yi ngeen di mëne te vraiment on vous encourage ñaan yàlla rek ngeen dem ba ñu détaché leen wala boog ñu jël leen jox leen gëdd bi nga xam ne yelloo ngeen ko ba nga xamante ni lépp loo leen defati comme alerte dañ ko jël au sérieux ba nga xam dëkk bi lépp lu ñeel walum éducation dinañ ci am retombées yi ñu ci soxla. jaajëfal képp ku doon seetaan salon d'honneur internautes yi auditeurs yi ñu doon déglu téléspectateurs yi ñu doon suivre itam seen kër ñu jaajëfal leen. Ismaïla ñaan yàlla lu ñu fi wax yàlla nekk njëriñu Sénégal ci barke guddig laylatul xadri gi ah, bu ko defee ñun tamit dañ doon laylatul xadri mais après dañuy dañuy dañuy kii tamit dañuy def <laughs> ma wàcc leen wàcc leen ci merci beaucoup. <laughs> merci beaucoup à lundi incha allah bon week-end Ismaïla. bon week-end jërëjëf merci eh, di tëj merci beaucoup grand Assane. kañ ngeen di tëj gars ñëw merci beaucoup. borom la euh, technique bi ma àndaloon yëpp gërëm bu baax suñu partenaire yi boutique cosmétique Alwar portable EDM ak euh, Serigne Diab merci beaucoup à Bazar au Kangam seen Agritech seen Grand Place Thiès Habillement merci beaucoup à Chérifa boutique pour habillement depuis ouvert comme nekk foofee ci cité ouvrière merci beaucoup notre ami Wahab ci jàppandal bi merci beaucoup à euh, Moussa Mbaye euh, merci beaucoup à Elasen, Sène ci régie bi Khadija moo fa nekkoon Mame Hakim ak Badara Diaw jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci ba mu yem merci beaucoup à Dado gi di leen jox dig daje incha allah altine ci beneen salon d'honneur merci beaucoup à toutes